maanaam ki soxla GP bi di la indil ñu lay envoyé ci poste beeg DSL fu ne muy metti ki nga soxla ci boppam mën ngaa jot ci boppam jëxëran nii émission bi jeex rek moo ngi pari émission bi bu jeexee laa la wax de boo ko woo mi ngi pari balaa émission bi jeex sax àgg na loolu moom ay code la kooko di kan euh, di ngeen ma wax jafe naa jot mais léegi au lieu que jafe jot mais war naa mën a yomb a gis déplacé wu leen dina ñëw Belgique dina ñëw France Espagne fu mu ci mën di doon daal numéro WhatsApp bii ma lay jox farlu ci te bañ a tay taal sa oto wala nga dagg bi avion fekk si ko fi mu nekk bu gënee gaaw kooko di kan Cheikh Bara Ndiaye borom def gis tegtal à Paris Cheikh Bara ngi Europe ngeen bàyyi xel bu baax a baax a baax bàyyi leen yitte yi ngeen ñëw fekk ko ci hôtel bi Cheikh Bara Ndiaye borom def gis yaa ngi ci Tektal TV sa tele émission Tektal sa émission àdduna wërngal këpp di la seetaan waa diaspora bi soxla la am kaañu dal ci yow jafe woon a jot far ñu mën laa gis sax lii ne moom xanaa mooy mu dax mu ràkke looy nuyoo àdduna wër nga képp bi lay seetaan ba pare waaw auzubillahi a shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi man wala maa ngi lay nuyu alaaji seex taarif di nuyu eh, mboolem ñi nekk ci sa internet yépp hmm. di nuyu Euh, sénégalais yi nekk ci réew mi ak bitim réew di nuyu euh, sëriñ Mountakha xalifa général de Mouride di nuyu mhm. euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Mahtar Mbacké di nuyu Soxna May mhm. di wax rek mhm. émission bi sama émission bopp la ndax mën naa wax ne fi la lépp doore comme fi la lépp doore nag moom kenn mënu ko bàyyi ginnaaw ginnaaw yàlla euh, ci caméra yi la la ma caméra njëkk tiime hmm. ñuy wax ci micro yi laa njëkk a téye micro tamit di wax ci lu mel nii hmm. kon ak lu mën a xew rek euh, barab la boo xam ne moom suma barab la euh, noonu nga ko waxee nag ñu ngi ci daanaka sax xaw tuut nga fekk ma dem hmm. mooy incha allahu taala bu ñu jógee fii ñu toog rek dañuy dugg ci avion bi jëbali aéroport daal dem incha allah war a wàcc France eh, xam naa danañu guddee yegg si waaye suba ci eh, ajjuma ji mm-hmm. di tombeek la trois dinañ nekk France mm. eh, ca Paris mm, ñu ngi fay nekk vendredi dinañ fa nekk samedi dañ fa nekk dimanche ba lundi ci hôtel La Chelle cloud buggi faal loolu moom xaw ma ko kuy ñëw daal ba yeboo nga woote ñu wax la hôtel bi xaw ma lan sel sel sel sel <laughs> xaw ma nan la sel saakulu buggi faal waaw non la koñ koñ bi koñ bi ci boppam foofu la <coughs> en tout cas daal waaw foofu daal ñu ngi fa nekk ba lënd ci guddi mhm. su ko defee nag ñu dem ci yoon wi ñu tax a gën a jóg mooy dem seeti sunu jëwri ni bopp alxaaji Manir Ñang ca Belgique mhm. foofu tamit dañ fay def euh, mardi mardi mercredi ba jeudi mercredi ba jeudi suñ fa jógee ma dem seeti suma xaritu regemaan boo mm. xamante ne suma xarit la barki dem mm. rek la jóge Sénégal seet si ma mm-hmm. euh, di ak soxnaam mm-hmm. di Louis Sans mm-hmm. Louis euh, defe naa noonu la tudd man tur bi moom wan mm. loof rek laa koy tudd mu ne ma mu ma wan xaat <laughs> waaw léegi nag sama waay la nag moom ñu dem foofu seeti ko Bruxelles incha allah ak Jaylaani Fofana Jeylaani Fofana waaw ci Jeylaani njëkk mm-hmm. suñ noppee ànd ak Jeylaani dem Bruxelles Jeylaani nag fi mu dëkk damaa taxut ma xam ko waaye xam naa ne Jeylaani moom sénégalais bu siiw la mm-hmm. dem mm, def fa moom tamit vendredi mm-hmm. euh, samedi ba dimanche jàpp naa ko ba lundi incha allah euh, bu mardee ñu dellu siwaat euh, Paris pour incha waaye directement aéroport ñëw Sénégal ñëw Sénégal waaw xam naa daal jàpp ne loolu mooy mooy yoon wi loolu mooy yoon. waaw mais bagage yu saf-saf yi day dem lépp nga fi. xam nga nag ñun moom ay sëriñ lañ. waaw damay wax ne bi ñuy jàng. Mhm. biñ ñu masaan euh, gis ñi ne doomi sëriñ mun njaay jaara la. Mhm. Euh, da jël dara jox ma ne ma am ñaanal ma. Mhm. booba xale laa boo xam ne sama damay jàng mokkalaguma. bi ñu fa jógee bi ñuy nekk ci. formation yi ñu jaar ci àdduna diggante marché Ocass ak njàngum Masaalikul Jinaan nag euh, ca atelier Balla Seck ak hmm. ko fanati sax euh, moom daal bari na fu ñu jaarale mm-hmm. biñ jógee ci daara ji laata ñuy xaw a ximmaliku yooyu yëpp rek nit ñi dañ ma fa daa fekk di jël weccat di ma jox mm-hmm. surtout que dara réer ñu ne ma ñaanal ma mu feeñ mm-hmm. sam papa daa mënoon na ñaan ci lu réer wala jox ma dara ne ma ñaanal ma wala nit yoruk tàpp fekk ma fa ne ma ñaanal ma sa papa damaa ñaanaloon ci tàpp ji ma ne ah man xaw ma loolu de mu ne ñaanal ma rek gëm naa sa barke bay waaw comme nag loolu noonu la demee ci ñun mu teel a xam ne lii mooy suñu wàll ci adduna ñu nekk ci hmm. loolu nag daf ñuy def fuñ mën a nekk rek moom ak ñaan danañ fa nekk ak ñaan dina fa génn fii mukk nit karuma ne ma hmm. ñaanal ma souvent sax ma jël taxi taxi man bi bu ma wàccee jox ko fay gi mu ne ma am jël ci wàññi ci dara ne ma am ñaanal ma ta xaw ma xaw ma ko hmm. lu yàllay def la rek euh, nit gis la am ci yow yaakaar ne yow mii daal am nga loo man ci sa digganteem ak boroomam hmm. noonu la demee euh, yàlla xam na ne fan yële rek jël naa ab taxi indi ko ba ci bunt kër bi may wàcc ma daal koy jox 6000 francs mu rocc 2000 yi jox ma ne ma ñaanal ma ma ne ko da nga maa xam mu ne ma déedéet xaw la sax ma ne ko lu tax nga may ñaan loo mu ne ma daal depuis nga toog ci oto bi ba léegi moom maa yëg daal man nga man dara ci samay mbir yàlla xam ne ko billaahi wallaahi ma daal di loolu mat na fii heure bi daaw daanaka rek ma ne ko ma ne ko ah waa kon de baal ma ñaanal la ko wàccal mu wàcc ñu ñëw dugg ci biir kër gi ma defal ko mu sangu mhm. ma defal ko biteel bu mag ne ko yóbbul waaw taximan boobu euh, xëy na sax mu ngi ci biir gaañi léegi miin na waaye noonu la ñu yàlla boole mm, waaw mm. daa mujj sax léegi moom euh, mi ngi ci affaire gerte geeg affaire chinois yeeg yooyu ci la mm. nekk waaw waaye daal euh, noonu la demee kon nag booy dem fu mel France nit ñi xam la yàgg laa dégg ngay wax mm-hmm. ci ay ñaan ay ndomba ay tul ay jaaro ay sangat ay émorite ay nangam ku la gis day riir ñëw boo ko boo ko yoruma ko da ngay tas yaakaaru waaw te nag man ñaan gi am na ci loo xam ne euh, ci sama biir bopp la nekk. ci bopp waaw lu mel ne faj ajo comme tey nga am ay coow ne damaa bëgg wax ji fay. wax ji fay lu mel ne nopp jigéen. nopp jigéen. lu mel ne comme ay bayre place. mel ne faj rab. faj lu mel ne ajo daal ajo damaa bëgg damay xëccoo marché sàngam damaa bëgg gañe mhm. dama damaa bokk ci club sàngam bëgg ñu yëkkati ma damaa bëgg contrat sàngam ñu signal ma ko nang yooyu. loolu moom voilà loolu moom daggob xaatim la mm. xam aajo ji dagg ko xaatim toog zikar ko mu am xam sadaxa yi sarax yi ne ko defal lii defal lii toog day jékki-jékki rek woola na la yàlla faj na aajo loolu moom loolu moom bu doon loolu dong dong dong dong moom du ma sonn parce que loolu moom su ma dënn la nekk xam-xamu chiffre la mm. xam-xamu mathématique la ci man fu ma nekk bu ma amee kayit mën naa ko teg rëdd ko léegi teg ko ma mm. neexoon mo mën na maa dem ba fu ma neex mais bu dee nag li jëm ci faj comme nit kuy am ballottement xam ne day def biir bi day kur kur kur kur kur wala boo lekkee rek muy def ngelaw nga xam ne doo toog cinq minutes euh, maanaam mënoo téye njàpp wala ngay def euh, toog ay deux jours trois jours doo dem toilette nga xam ne da ngay toog ay jours doo dem toilette wala yaram buy tàng wala ngay dëkk ci bopp buy metti foo toll wala ngay am ay ay ay colandeer wala ngay def fii muy tàng ci biir ngay géex estomac bi di am reflux gastrique wala ngay am mauvaise haleine wala say articulation di metti mm-hmm. wala muy dem bay tàng sa suufu tànk yi mm-hmm. wala ngay def euh, doo am appétit sexuel maanaam mën ngaa toog ay quinze jours yaak sa jabar doo ko bëgga a sëy mm-hmm. wala ngay def gis ta xam ne lii day dellu wala nga am euh, par exemple buy sëy problème mu kàttanu taxawal ngay am wala ngay sëy boo fa defee minute daal di yegg wala doo ko yegg sax am nañu ko mënta yegg loolu yëpp moom mu nekk loo xam ne xam-xamu plante la il faut da ngay jël kooku moom gis na ko doon wax na damay faje hémorroïde ci alxuraan ma ne ko ah alxuraan de mën na waaye li ma yaakaar mooy alxuraan danaa la demal ci garab gi faj la waaye alxuraan directement di faj hémorroïde moom loolu moom yaakaaruma nga am ci ndam mu ne ma ah, di sa diwo ma ko wax ma ko waa boo ci amee ndam nga woon kore boo ci amee ndam nga woo ma wax ma ko defe naa ma yetta la tuddoon xaw ma <laughs> eh, waaye daa mujj woo ma naan ma sëñ bi daal ndekk kii daal maanaam ma ne ko ah, daal man neewoon naa ne hémorroïde koy faj waaw léegi nañ yooyu plante la alxuraan a koy jàngale mhm. euh, ndax euh, alxuraan da lay tegtal ca garab ga garab ga boo demee nag xam tegtal yi daal koy jëfandikoo mu faj noonu la demee waaye yooyu moom il mhm. faut dañuy yor plante mais yooyu moom bu soobee yàlla danañ ko waajal yii ma tudd yëpp ku ci am jafe-jafe mhm. bu soobee borom boo ñëwee dinañ ko faj bu dee mbirum rab hmm. kooku yàlla boole nañ loolu sunu mbir la maanaam fii ñu toog ni nii nii nii nii hmm. buñ amoon lu ñu bëgg a def ci affaire jinne ak wala rab mën ko def fi ñu toog loolu moom suñu mbir moo xam ne waaw suñu suñu affaire la moom mi ngi ci ñun hmm. voilà bu dee mbirum euh, fay wax mbirum mbirum nopp bu dee mbirum not doomu aadama bu dee mbaa mbirum euh, par exemple kuy mooy yàlla wala gone gu dëgër pop di di di mamm mm-hmm. wala ko bëgg yilif njabootam yooyu euh, moom itam tabarkal la bu dee euh, ci ñetti càngat yooyu may wax muy mm-hmm. sungu fu ubbeeku sungu mm-hmm. fu bayre sungu fu wërsëg kooku càngaayal njare la kooku it ñun amuñu ci xam-xamu di ko sensé ñu ngi ko fekke woon lu ëpp ñetti junni at ci gannaaw ñu ngi koy jëfandikoo mm. amul buur bu mës a falu kajoor lu dul da dem ci njare ñu sangat la amul buur bu mës a dem xare lu dul da ngay dem ci njare ñu waajal ba ci sax contestant bi ngay àndal di guerre yi day am élément njare-njare hmm. boo xam ne day ànd ak yow euh, boo naroon a jóg mu ne la jógal waxtu sàngam hmm. waaw xare bi su ngeen ko fajaroo gañe ko xare bi bu ngeen ko njollooroo yareñ ko xare bi da ngeen koy rañaan mooy da hmm. jul añ ba noppi rek maanaam gont ko bu ngeen demee rek da ngeen koy gañe loo noonu lay demee noonu la demee léegi bu ko defee sa yooyu dafa nekk su nguf su xonq su nguf su xonq si nag day nekk yoo xamante ne day dindi cat boo yoree yaram bu diis kenn di diis da koy dindi day dàq ay rab day dindi ab liggéey liggéey lu mu yàgg-yàgg ay kort ak yooyu boo dee sangoo sunguf su xonk si da koy dindi sunguf su weex dafay mayee xaalis day tax wërsëg yomb la wërsëg day dikkal bu baax a baax maanaam boo solee sa dàll loo dox mu sotti ñaareel loo yaakaar rek te am ci yéene yàlla dana ko sottal ndax dafa bari nit ñoo xam ne tëju mooy tax suñ nee woon ne dañuy dem jëndi portable suba bu subaa ñu ne marché ba daa am tàkk na wala am na waaja tukki na wala jabar ja dee na duñ dem maanaam lu ñu bëgg a def rek day tas tëju day dem ba àgg ci soo doon liggéey ñi lay fay un million boo ko téyee nii balaa weer wee xaaj moom di nga di nga tëju bay laajaat moom di leb ak a ñaanaat ndax doo mënal sa bopp noonu la demee bari na baneen sunguf bu werte bi xaaral ma ñëwal la ci luy tëj nit baneen sunguf bu werte bi hmm. day tax bayre jigéen bayre maanaam nit ku la gis bëgg la wala nit dégg sa tur rek bëgg la wala ay téléphone ay télé ay oto ay montre maanaam matériel daal hmm. da lay yomb waaw loolu mooy mooy mooy kii yooyu léegi nag ñetti cangat yooyu boo ko boolee mooy cangat yu kaamil la yoo xam ne boo ko dee laal moom mënoo ñàkk wërsëg hmm. mënoo am ay tolof-tolof ndax dangay ngay të hmm. mënoo ñàkk bayre ndax nit ñi dañ lay sopp waaw loolu nag moom itam incha allah dana bokk ci yi nga xam ne dañ koy àndaale góor ak jigéen nit ku koy sankoo ñàkk ba voilà loolu bay lii indi nag nga wax nit tëju waaw loolu nag nit ñu bare numéro bi 77 610 81 81 whatsapp bi direct nga jot Cheikh hmm. Bara direct ñu tegtal la fi mu nekk hmm. nga fekk ko ci Paris wala ci Europe bu mu ci kii nga ñëw wala bu ñëw sa dëkk rek mu gën a yomb ngeen bàyyi xel nii émission bi kii rek wooteel mi ngi Paris hmm. waaw incha allah léegi liy tëj nit loolu nag loolu xam-xam piir la Cheikh Talib hmm. na ñoo xam ne jàpp ne day mooy mooy mooy yàlla ci wàllum jigéen. nit dana mooy di na am nañu mooy di mooy di mooy te dara du tëju. te dara jigéen. Hmm. gis nga affaire mooy yàlla. Hmm. ah xam nga physiquement nii. ci wàllu wërsëg da nga gis koo xam ne du mooy fenn mënta am ñaari dërëm. gis koo xam ne du jóg ci jigéen du manqué dara dégg loolu du problème ay affaire damay njaaloo damay loolu yàlla nga tooñ. yàlla nga tooñ loolu moom yàlla nga tooñ. mais lan moo waral day nit ki bu dëgërlee dem di jaamu ji yàlla pour mel ne dafa soxla yërmande yàlla bu affaire am baaxee lu jóg mu xaw a fàtte yàlla tuuti. ba nan ko bu tëjoo am ñoo xam day mel ne intérêt boobu lañ toppee yàlla jaamu yàlla ko. waa xam nga bàkkaar nag. Mm. dana wàññi wërsëg. Mm. mooy da lay jëlee ci li nga tax muy def loolu mooy bàkkaar lépp lu bon rek. da da koy xëcc andil la mm. ñàkk daa bokk ci li bon loolu beneen buntu la mm. jaamu yàlla dafay xëcc wërsëg mm. parce que lépp lu baax lépp rek lépp comme li sëñ Tuubaa ne woon faaraxtu iblisa mm. wa jamial mafasid laa sant rasulullahi wa jamial masalih maanaam ànd ak iblis mbooleem mafasid yëpp day ñëw te ñàkk ak gàttu fan ak ñaaw ak ñàkk xorom yooyu yëpp dafa ànd ak iblis waaye du caaginte ne da nga naan awma xaalis parce que dama doon moy am naa xaalis parce que ma loolu du noonu lii tëj doomu aadama nga xam ne naan kii dafa tëju dafa am nit ki bis bu nekk loolu nag yu baatine la yoo xam ne minum siifur la ilmu maanaam ilmul xadat maanaam siifur mm. parce que siifur mooy adduna mm. siifur mooy adduna joo xamante ne kenn munta doxal adduna lu dul ay siifur mm. voilà nit koo gis ci adduna dafa am bis bu mu juddu am waxtu wu juddu am euh, tur tudd tur yu mu tudd dafa am chiffre bu muy tollool bis bi mu judd dafa am chiffre yu mu tollool année yi kii dafa am chiffre yu mu tollool léegi nag chiffre yooyu euh, wa samsu tajri li mustaqarri laha saarikata qadiru hasil xalim wal xamaru xadarnaahu manazila xata xaadakal xurjoonil xadim laa sam si yeen baqi laha antidikal xamara wala layl saabiqu anhaar kullu fi falak loolu laa bëggoon a indi falak maanaam ci ilmu léegi nag euh, pour naar boobu nit ki di ñëw fii nag am na nit ñoo xam ne ci jamonoy sedd seen wërsëg ki lay gën a yolom ci jamonoy tàngaay seen wërsëg dafay xaw a dëgër am na ñoo xam ne ci jamonoy tàngaay seen wërsëg sax buñ doon seetlu seen liggéey day mel ne dafay gën a yolom am na ñoo xam ne tey couleur couleur man dem naa ba nga xam ne xam naa man ci ni may seetloo sama bopp maanaam boo amee xam-xam yooyu di ko seet di ko vérifier man dem naa ba xam fi mu ne couleur boo xam ne mm-hmm. fi mu ne bu may lijjanti dara tam wóor ma ne mën naa dëgër bu ma ko solee day sotti su ma banquee su ma nee kat jox ma sama yére am xaalis bi wallaahi asib loolu laa koy wax <laughs> jox ma sama yére am xaalis bi rek dama koy jox su ma ko solee journée boobu bëgg laay def di am xaalis foofu tamit bëgg naa ci couleur la hmm. voilà damay gis couleur rouge léeg-léeg nit ñi di ko gaafal te sëriñ si bëgg lu rouge tamit lu ko wax xam nga couleur rouge tamit dafa am non non oto dafa am oto yoo xamante ne yow ci sa bopp mën ngaa am oto couleur bi ah, yow ak couleur bi ak oto bi dëppoo hmm. nga jël ko jox ko maa Demba Ndiaye ma wala nga jox ko lëx-lëx mi hmm. couleur bi ak moom ñu compatible hmm. yow da am say couleur kii am ay couleur yow nga am ay chiffre kii am ay chiffre am yow nga am ay ay ay ay sarax kii am ay saraxam fii ne am na ñoo xam ne bu ñu rendee dañuy am jafe-jafe dañuy daal di am ay naqar dañuy triste daal ay ay mbir yu diis moo leen dikkal mm. am na ñoo xam ne fii ne bu ñu jaaxle woon ci àdduna lu ñu mën a doon bu ñu defee sacrifice ren di dem seen yoon mm. man fii ne bu ma rendee ñu ne maa leb lépp lu ne xam ne dana affaire bi dana baax waaw parce que xam naa mm. su ma su ma yoon dama koy xam damay wóor que ne man fii ne nii li ma feebar feebar bu ma amoon sarax sàngam bu ma ko defee lii dey am maanaam damay am xaalis fan yooyu su ma gëjee rendi damay damay banque danga koy xam noonu la ame ñoo xam ne rendi du seen affaire togg ndawal gu ñor en général nag pour la rendi bone ci yow mhm. maanaam lu yemb ba pare ngay saraxe maanaam mburu ah. beñe wala yàpp bu ñor comme dem ci dibiteeri bi jënd di bi saraxe mhm, bo boobu mooy bi baax ci ñi nga xam voilà loolu képp koo xam ne kay sa remarqué nga sa bopp ne waroo rendi waaw ah mhm. bul sax bul sarxe soble su ñorut bul sarxe gerte gu ñorut dégg nga mm-hmm. bul sarxe ay xeeti guraak maanaam xeeti xeeti xeeti xeeti euh, yu maanaam yu ñorut yu ñorut yëpp da koy laalaale da ngay sarxe beñe di sarxe lu mel ne cere wala laax wala dibi te loolu noonu mën naa la cee jox ay tegtal mm-hmm. bu fekkee koo xam ne rendi baaxul ak yow da nga nekk sëriñ buy sikar nga xam ne turu yàlla wi nga yor mm-hmm. dafa baax ci deret ba pare yow sa tabiya nanguwul rendi da ngay wut ndawal di ko sarxe ndawal gu ñor bu dee ko yor place bëgg mbooloo ndawal gi nag mbooloo lay tàggat toujours boo koy sarxe tamit ki nga koy sarx da koy bett waaw da ngay dem jën ndawal dibi def ci lépp mm, defar laxas ba mu jekk nga fekk dof bu toog da ngay dox ba tolloog moom nga xam ne dalay wër kii boo ko joxee rek dana kontaan nga jeg-jeg jox ko ko rek dem da koy bett di ko ko jox loolu dafay dafay tàggat mbooloo ci nit ki dafay faj aajo en général bu dee nitu marché nga soo ko dee def tamit ma da a marché bu fekkee koo xam ne sa tabi xam na rendi hmm. kooku saa boo amee jafe wala nga am loo bëgg hmm. taxaw rek bala ngaa rendi nga nga nga nga fas ci jaamu yàlla daal di rendi boo ko defee rek incha allah da ngay gis sa mbir yëpp di di yomb bu dee nag kuy ku ku sa tabiixa tamit ànd ak rendi fi mu hmm. ne boo amee coow looy bañ mu siiw boo demee jënd gerte xott nga sarxe mais dafa am technique bu fekkente ne nit ki dafa bëgg dafa xam ne am na cat ci yaramam. am na cat ci am na cat ci yaramam bu ko neexee danaan nii tey la lan dimanche lundi mardi kon ñu ngi ci mardi am naa ñetti fan ci semaine nga dem jënd ñetti kilos yu gerte. Mm-hmm. boo ko jëndee au lieu nga saraxee ñetti kilos yi noonu ne ngay jël def koy suuf mbuus wala nga fekk nit ñi toog rek nga tibb gis nga buñ tijjee gerte gi. Mm-hmm. rek yow euh, maanaam cat li day dañ. maanaam bu gerte yëpp génnee doom yi rek. bu doomi gerte yëpp génne xotti wi ko tëjoon rek yow sañ mbir day da ngay gis att day bu fekkee nag koo xam ne coow ngay tëj maanaam da nga ne hii ndaw si ma doon waxal démb bi ma am vidéo bu ma ko génnee war a nangam mm-hmm. da ngay dem jënd gerte xott gu diis mm-hmm. comme par exemple nga jënd juróom fukki kilo takk ko ba mu dëgër ci benn saako jox ko benn nit waaw dégg nga boo koy joxee tamit nga yéene ci coow lii ma topp na na topp gerte gi dem soo ko defee fi ne da ngay jëg da ngay mën mën naa bokk ci sababu mu nax saayal coow li mm. moo tax yooyu yëpp xeetu li sa émission bi la delluwaat muy tegtal lu nekk dafa am tegtal voilà yàlla sax mm. daf na la jullil tisbaar jullil tàkkusaan jullil timis waaye man ngaa julli fajar ne eh kon naan xam naa affaire bi bu tàkk tisbaaree boo delluwaatul ci tegtal yi da ngay daanu ndax ba nga defoon ci fajar bokkut ak bi nga defoon ci tisbaar nga jóge ci tisbaar gi ne def naa ñaari julli kon troisième bi comprendre naa ko mm. yàlla wax na ñu julli nga dem timis ba nga defaat même chose da ngay daanu parce que def mm-hmm. da nga respecté wu tegtal yi lépp ci ay tegtal la tollo noonu la ay tegtal la yoo xamante ne da ngay xam mm-hmm. heure chiffre destination boo ko defee rek affaire bi day yomb ci yaw mm-hmm. jërëjëf euh, Cheikh Bara Ndiaye borom def gis émission bi nga xam ne que émission pour waa diaspora bi la ndax euh, kaañ bu réy li naan dal ci kaañ wala kaañ dal ci yow kaañ dal na seen kaw parce que yoon bii GP yi li ngeen doon envoyé di ci son nag jot naa ko jotuma ko amal passif tuuti fekk ko fi mu nekk nga gis ko bu dee yaa ngi Belgique nga xaar ko tuuti mu ñëw bu dee yaa ngi France nga ñëw euh, en tout cas daal numéro bi leer na ca WhatsApp bi di nga ko jot moom ci boppam jërën ñu tegtal la fi mu nekk bu baax a baax nga ñëw gis ko wax ak moom ci lépp parce que boo gisee bëgguñu ko dagg yi muy wax yépp dafa am njëriñ te buñ ci bàyyi mën na ci jeexal émission bi bu baax a baax mais bi may ñëw Cheikh baara mooy wàllum kayit ki nekk bitim réew nga xam bëgg naa gis nii ngay ñëwee France di ñëwaat Sénégal di dem ak dellu am na ñoo xam ne bu ñëwee dellu day jafe te namm nañ seen njaboot wala seen njaboot namm leen ñi problème mu kayit lan am ñeneen ñi problème mu liggéey bu baax lan am ñeneen ñi xeetu yàqu-yàqu dañ leen a dott ñeneen ñi dañ leen a naawtal xeet boobu daal loo ci man pour ku la gis foofu. waaw mbirum kayit. waaw dafa am xam nga ay mbir yu bokkut. man nag damay xaw a wuuteeg euh, ñu bari ay ay waxi. ay waxi mooy nangam ñaanal la nga am kayit loolu du problème gis nga kayit. ba ubbi ko ba ubbi koo yàlla la yombal kayit boo mm. tëjoo mooy waral nga tëju cim réew doo mën a génn doo mën a dem fenn mm-hmm. ay ati at loo yaakaar même gis nga foo fekk ku ñàkki kayit mm-hmm. noonu lay ñàkke xaalis noonu lay ñàkke jigéen ko nopp mm-hmm. noonu lay ñàkke woote nit ñi wuy si ko noonu lay ñàkke nit ñi téléphone am sax du sone ñaareel parce que li ko téye kayit yi du loolu kese dafa tëju ki ubbi ko jigéen ju ko gis nopp ko góor gu ko gis nopp ko muy am xaalis ci poosam day am kay te li ma la wax ni ñoom moo moodu mood yi nañ xoolante ci seen biir ñu ñàkk bayre ci seen biir dañoo ñàkk xaalis dañoo ñàkk xaalis dañoo ñàkk kayit hmm. ñi am bayre ci seen biir fuñ tom ñu jaar ñu ne ma nañ def nii nii nii am nañ xaalis am nañuy kayit bay lijjantiwaate hmm. loolu mooy àdduna loolu nag ñaari fekk rek ci nekk mooy hmm. benn bi mooy da ngay baax jëm ci nit ñi ci biir nit ñi nga baax jëm ci ñoom di jëflanteeg ñoom jëflante bu rafet kayit yaa ngeek ñoom lépp a ngi ci nit ñi léegi ñu ne la sama càmmiñ xam na diw nañ dem def ko nii def ko nii waaye boo añaanee jëm ci nit ñi dëgëral mm-hmm. loo jublu yàlla dëgëral mm-hmm. parce que da ngaa dëgëral jëm ci doomu aadama yi loolu moom du lu ñuy sangoo du lu ñuy takk du lu ñuy naan comportement la dafa bëri nit ñoo xam ne ji koy cuuc lañ yor mooy mm-hmm. cof ta daw cof ta daw waaw saa yoo leen séenee ci ginnaaw nit ñi rek maanaam yittee leen fa bàyyi loolu mooy nit ko xam ne dafa jóge ci doomu aadama delluwaat ci jikkoy mala mooy ñi ngir nit ñi dañoo yeggaat foo xam ne mi ngi mel ne xar mhm. di koy mm, bàyyi ma yi xar yeeg nag yeeg euh, mbott yi saa boo séenee mbotem xar di daw di topp ci ginnaaw xar daa mhm. bëgg a nàmp daa a waaye saa bu ba yëg ne fer na mhm. xar mi mu doon nàmpe bu ko romboon nii du ko faale te bu dof dof loo sax mën naa yegg sëy ko li jënteetu ko doo gis mukk xar yu ma xar yu màgg nga naan kii mooy yaay ak kii mooy yaay faale wuñ ko secret yaay dee na ci seen xol saa boo gisee xar mu ngi yaay Mhm. namp baa tax doomu aadama yi nag ñaareel dafa am nit ñoo xam ne fuñ la woo rek xamal ne intérêt lañ lay doyee mhm. foo leen seen ñi ñëw ci yow so intérêt lañ lay wax loolu mhm. ñooñu ay mala lañ ay xar lañ loolu nag du jëflante bu rafet te ñi mel noonu ñoo yàgg cim réew ñooy am jafe-jafe tudd doom sax boo ko bëggoon a def euh, maanaam doo ko aw aw trente mille mën nañ la cee ci kaso bi parce que nit koo jaral mu lay fayal amul loolu jafe-jafe la boo xam ne euh, boo nekkee cim réew maanaam yàlla dogal nga jóge fa tukki mhm. ci yéeg avion mu daw huit heures de temps nga wàcc mhm. nga xam ne la fa gis ci nit ñu ñuul da leen di wàññi mhm. ña nga fa gis ci nit ñu ñuul ñi ngi ci mën a wax na dama ne ñu ne a da nga leen di wàññi ñi nga naan dama ne dane a ñi ngi ci bokkalaat ay xalaat ak i pas-pas ak gis-gis dafa tuutiwaat. dafa tuutiwaat soo ci boolee nag bëgg a tëju. bëgg a daanaka nag sa waay da ngay daal di yàq sa àdduna. àdduna bu métti voilà da ngay daal di yàq sa àdduna il faut ko tukki moom. il faut mm. nga tijji ko. nga tijji dem ci association yi. Mm. dem ci daayira yi. Mm. participer. di dem ci manifestation politique yi. di dem ci di jéem a bokk ak gaa yi dund. loolu mooy tax doo doo kale. mais soo ñëwee yow dem li ngay gis ci nit ko ñuul daa tuuti. li ngay gis ci africain tuuti la. africain yi ci Sénégal yi dafa tuuti sénégalais yi ñu ngi ci dëkk njàmbur wala kajoor wala bawal ñu tuuti la waat ñu tuuti la soo ca bëggee dolli waat naan kii murit la du ma wax ak moom kii tiijaan la du ma wax ak moom wala kii day naan sàngara sax du wax ak moom wala kii maanaam dugalaat sa bopp foo xam ne dangay dem ba mu yàgg mhm. ñu la doon néewal doole doo gis nit mhm. da ngay dem ba àdduna bi li muy rëy rëy mennum yow yaay dund mhm. comprendre kooku boo amee soxla du faju il faut nit ñi di ubbi seen bopp di dugg ci doomu aadama yi nit ñi nag la secret ba ca góor ga waxoon rek mm-hmm. ku leen jox seen bopp ku leen jox sa bopp ba mu jeex nga xam ne ngaa jël sa bopp jox ko nit ñi bañ jeex mm-hmm. da ngay torox da ngay waaye boo leen bàyyee bañ jeex mm-hmm. da ngay xal ko da ngay xal waaw da ngay ak ñoom waaye xam ni ngay ànd doomu aadama waaye kenn mënta dem sans nga ànd ak nit ñi nit ay garabam waaye nit ki nit ay posanam loolu moom benn xam-xam laa lay wax bi ci des mooy nit boo ubbi ko ci wàllu wërsëg ay këyit ay yu mel noonu Euh, dafay yomb man booleem ñi ma woo mm. ne ma dama am problème mu jëkkër mm-hmm. dama lay jox sangatu ubbi ko sangatu bay rek sangatu muslaay sangatu muslaay boo sangoo mm-hmm. bu yënguwul ma delluwaat ñaareel da ngay daal di gis na ah, am na ko a gis de waaw mujj nañ ma maye loolu ngay dégg bu dee kuy wut place it mm-hmm. man ngaa laal parce nit ñi seen seen yaram moo bokkut am na ñoo xam ne Fall ah, ko laale daal a a du jeex am na ndaw su daan woo France naan sëñ Baara sangatam yi. sangatam waaw damaa dama na sangu ci bis démb woo na ma ne ma may nañ ma jëkkër. Ah, ah. waaw dama doon woo fan gis naa mm. benn audio bu ma bàyyi. bi ma koy yëgal ne ko. Mm. maa ngi ñëw Paris. bu ko tudd bu ko tudd. Ah, maa ngi mm-hmm. ma wax naa la ba sonn déggu ma ko. ma ma xool audio yi ma mujj ma dégg ko ci. ndeysaan noonu la demee loolu tax amul nekkuma fi di bindi tuuru jigéen dama mm-hmm. koo jox sungu fii ko sangul bi mu sangoo ne bi mm. damaa sangu ñu wooma mu am liggéey bàyyi fee am day mujj dund gu xat gi daal da nga ciy génn yàlla di la yombalal lépp kon daal jigéen borom kër léegi nag bu dee affaire léegi-léegi nag nga gis mm. koo xam ne mm. permis permis yi da ngay gis ko danaan man déposé naa bu ma déposé tey tey bu ñu ma dàqee kooku mm. nag da ngay dog xaatim da ngay dog xaatim toog liggéey ko moom loolu moom jar na ko waaw wa ilaa dama am waa Amérique yi ñoo a ko ëpp lu ñu ma koy wax damay dem face à face la xaw ma mooy hmm. damay jàkkaarloog juge bi wax moom hmm. kooku itam waaw loolu jar dog xaatim bu ko boo yeggee bu la séenee ngay ñëw rek mën naa am sax couleur yére bi ngay sol sax moo koy attiré wala parfum wala sax ya yàlla daal dina toj xolam dugal na ci képp nag koo xam ne da ngaa amut sëriñ bu la ñaanal hmm. nga jëm ci barab yu mel noonu nga xam ne wàccuwaay nga fa bëgg te ragal ku la fa toroxal bëgg fa bëgg fa bëgg fa résultat moo xam permis mm-hmm. moo xam ngay dem face to face moo xam nga nga jóge sa kër na tey moom këyit laay wuti tey moom këyit bi laay wuti da ngay def boo sangoo ba noppi ba defaru ba nga xam ne dem rek moo des waaw ngay jóg taxaw di dox di dem daal def def cinquante bismillahi rahmaani rahim cinquante bismillahi rahmaani mooy juróom fukk waaw mm-hmm. cinquante bis bu dee gis moo la woo waaw wallaahi boo demee da nga ñëwaat Uh-huh. bu dee da ngaa jëm ci ku bañ ku la koo ragal mm-hmm. boo demee dana da da da nga ne kii du moom mm-hmm. bu fekkee da ngay dem di wuti dara mm-hmm. incha allah da nga ko indi te doo accidenté ci yoon wi doo am gis nga loolu gis naa ci sek ci nettali yi fu ko Alaaji Malik jëfandikoo gis naa fu ko Baye Ñas jëfandikoo gis naa fu ko Sëñ Tuubaa jëfandikoo gis naa fu maam maam maam njare maanaam mag ñëpp muy sekkare bismillahi rahmaani rahim te booy xool wa innahu min suleymaana innahu bismillahi rahmaani rahim suleymaan yàlla ci moom la rotaloon bisimilahi rahmaani rahiim nit du ko def di am jafe-jafe mm-hmm. booy tëdd guddi mm-hmm. foo ragal réew moo neexut ci yow moo xam ne wóorut mm-hmm. vingt et un vingt et bu dee bëccëg goo xam ne da nga ne jar maanaam bu dee da ngay da ngay nelaw na nga xam ne da sa bopp yàlla nelaw ngay def mën a amatoo pexe waaw vingt la vingt et un bu dee nag am ngay pexe bëgg yàlla kàttanal la ci pexe yii cinquante cinquante jàpp leen loolu ngeen fonk ko ngeen fonk ko sëñ tuubaa nekkoon na Gabon mm-hmm. ba mu yàgg xel mi nekk ci benn benn benn benn benn leet naa mm-hmm. benn leet naa gendarmerie bu nekkoon foofu boo xam ne dafa soxoroon ci moom nag bu ko mosaan gis da koy ci bu toog mm-hmm. yooyu sëñ Touba ne xaaral dama bëggoon daa xaaral ma ñëw seeti ko bi mu ne bërët jëm ci moom dafa def cinquante bismillahi rahmani rahim loolu sëñ Touba ko wax ne ma def juróom fukki bismillahi rahmani rahim yegg ci moom bi ma yeggee dafa tiit jóg taxaw ne ma waa yow <laughs> da nga may seet si da ngaa jékki rek xalaat ma nii. Ah, léegi wax ma loo bëgg ma defal la ko. wax ma ko. teg fenn noonu sëñ bi ne tekk ba mu yàgg mu ne bëgg. nee na mu dem daw wut encart defar bi mu ñëwee xol bi yedd ko ne ko yow yaa waxoon ne. yaa jaayante woon yàlla ne lépp lu nekk ci loxol nasaraan yi bàyyee nga ko. mu doog a jël ko gas ko suul ko. Hmm. jëfandikoo ko waaye loolu pour wax la rek ci nettali yi nga xamante ne am nañ ko sëñ Tuubaa jëfandikoo na loolu. Hmm. muy bismillahi rahmaani képp ku nekk Europe bu la neexee daal saxal ko saxal ko saa boo sangoo ba defaru ba nga xam ne bu ko bu ko def nag di duggaat di génn waaw saa yoo xamee ne daal maanaam takk jóg rek a ca des mm-hmm. tàmbali ko rek di demaaleeg ah, boobu moo xam say loxo moo xam sa kurus dara mm-hmm. daat dem mm-hmm. bu soobee yàlla doo dee ci yoon wi loo wuti da ko am. mais nit ki am na droit def ko ba pare. fàtte montram wala seenam. wala waaw ah, yooyu moom du problème yooyu lu exception la. non non boo ko defee benn yoon rek baax na. boo ko defaatee xam nga yaa ngi ci téeméer. Ah, moom daal saa boo jëmeen tey euh, euh, kii mii. fi lëx-lëx mii. Ah. nga ne ah yàlla day maa ngi daal def bismillah rahmaan yàlla maa ngi ñaan nga xool nga nga nga tojal ma xolu lëx-lëx mii. Mm-hmm. su yeggee ci moom ma am li ma bëgg. nga wax ko sa biir xol dem Mm-hmm. incha allah bu ngeen ko dee def sax bu ngeen remarqué da ngeen yëg ne yàlla mi ngi leen di jox pouvoir yoo xam ne amu ko woon laata yëpp mi ngi turu yàlla lu caagi ne mm-hmm. euh, aajo du faju rek lu caagi ne la ngeen di wob sëriñ rek mm-hmm. dugalal nangam Western Union nga dugal foofu rek la yàlla nekk yàlla gën naa yaatu loolu gën naa yaatu loolu am nañu feebar ñoo xam ne taatu garab gi ñu tëdd xob yi moo leen di faj mais xamuñu ko secret dafa tuuti rek dafa tuuti rek voilà sëriñ bi ngay daw di jëm ci li nga xam doo nga lay delluwaat muy alxuraan yàlla yi ko bokk moo tax ngeen bàyyi di jékki-jékki rek naan sarlataa yi di dal ci kaw sëriñ seeg yu mel noonu tey gis nga gën télé araamul nekk ci YouTube bi araamul wax lu dul dëgg toog sa kër baaxul wax ko ci télé bi baaxul dee xool man dama bëgg nee naa leen man ñi may invité bis ku ma mësul invité laa wax de bis ba ma masee gis sëriñ bu ne ma sàngara lay seete damaa tiit te gis ngeen maa ngi toog ak sëriñ bu ne mësumaa invité sëriñ boo xam ne que danaan ma sangara lay seete kon du invité ñu bon duñ invité ñu yorul alxuraan mën nañ invité nag nit boo xam ne que mën na baax ba ci biir mu soppeeku mën nañ invité nit boo xam ne que tamit li ko ci dugal mën na am alal kese la kooku yàgg-yàgg day feeñ mais dëgg gi day continuer parce que ay caaxaan moom duñ xam kenn ay caaxaan di ko bàyyi moom bu baax a baax nekk leen ci dëgg tey ñaanlu tey jubóog seen waajur yi te fexe seen liggéey ngeen teg ko ci yoon bu baax a baax parce que tamit sëriñ bi lu mu aay aay nga doon footballeur mu ñaanal la ngay réussir ci làmb du yomb di leen sant sëriñ si lu man sëriñ si tamit di nangu dugg ci lu man ku man benn nga yem ci ñaar nga yem ci ñett nga yem ci ñeent nga yem ci boo mënul nga jànki ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax Cheikh Bara Ndiaye léegi nag bi ma bëgg a dugg mooy wàllu ngóora nga xam ne que waa bitim réew tamit ñu bari soxal na leen ba ci jigéen ñoo xam ne que sax dañu yor tubaab yoo xam bu ñu sañoon wàllum ngóora ñu gën ci aay ngóora tamit noo ci def ak moom pour kenn du bañ a gaaw yegg bañ a bëgg reprendre mu tëg ko bañ tamit am envie bi xeetu ngóora waa bitim réew dañ koy soxla. waaw xam nga ngóora nag. daa nekk lu complexe boo ma boo jekkee jekkee rek ne ngóora. waaw faiblesse sexuelle dafa bari ay façon mm-hmm. am na nit ñoo xam ne euh, dañoo nëbbatu seen seeni jabar. Mm-hmm. waaw jigéen ñi am na comme yàgg nëbbatu am. oui bu ngeen defee 15 ans. waaw da ngay am ak faiblesse ci sa diggante ak moom. ñu bare bari dañuy jël ay appare vidéo yi di xool. xam nga mm-hmm. tey dama lay wax par exemple. kii doo ko seetaan film prono tey tey tey. Uh-huh. ak ki ko seetaan pendant dix ans duñ bokk effet bu may def ci seen bopp. waaw ah, duñ bokk de. keroog hmm? kii moom. man bi may doog a ñëw ndakaaru taarub jigéen ñi ndakaaru dama mujj ma naan jigéen ñi rafetatuñ ñu ne ma déet ba tey yaa fi yàgg rek <laughs> waaye jigéenu ndakaaru sëj bi bu ma ko mosaan xool eh? tabarkal la tuba surtout tuba yeeg yooyu du cakar cakar ci da nga naan da ni mu la daan defee effet uh-huh. boo fi yàggee rek mu dañ uh-huh. loolu dafa am mm-hmm. waaw dégg na am na suñ benn sëriñ bu jógee woon ca bawal yorub otoom dawal ba tollook euh, université la xaw ma liise bi seen gone yi di wàcc. Uh-huh. xam nga mënut a jàll ndax day taxaw ñu ñuy jéggi tali bi mu te leen xool ba yàgg mu ne safoor bi xam nga ne ñun denc ñu. <laughs> <laughs> waaw xam nga ne <laughs> waaw xam ñun denc ñu. safoor bi da ngaa boo ne ah, ba. li mu koy seetee loolu diis na de. ah denc ñu de mu ne ko denc ñu de. <laughs> Eh? mooy jigéenu kaw-kaw. Eh? xam nga ak jigéenu taax. tubaabe geek. si eh? si coquette coquette geek. yooyu booy doo ko jogee ca dëkk ba effet bi muy def sa bopp bi. ñu mm. bari duñ ko wax nag waaye. Mm, ah wax dëgg yàlla dañuy rafet lool. maanaam kii lool rek du bokk ak daal effet bi muy def ci yow. du bokk ak bu yàggee ba yàgg fii ne man jigéen xool doo da ngay sax ay jigéen lañ ci dëkk bi. ay jigéen maanaam. doo ko wax kenn nag waaye boo doon dox da ngay gis jigéen sëñ bi eh, doom ngay da ngay bu njëkk xam nga lislaam danaan xoolal benn yoon waaye dangay ngay weere luwaa bi moom <laughs> <laughs> xool fixé ci bi dañ ko dul wax nag eh, eh. ah dañuy jox bari na ustaas yu lay yu lay waar ban conseil laa leen fi jox bari na ustaas yu lay waar naan la del bul bul weere luwaa bi booy doo ko ñëw nag koy weere de <laughs> billaay ku leen topp nii boo moytul di nga delluwaat fa nga jóge woon wala di nekk nekkin loolu lu yàlla bind la. lu yàlla bind nit gis nga sa sawaay. Mm-hmm. booy doog a dem ci taatu géej seen ab bato. dalay jaaxal. dalay jaaxal. dégg nga. Mm-hmm. ñu bëree bëri gis nga bàyyi faal yi takk lakk say yi nii buñ leen seenoon dañuy daw. te ay ponkal yi ëpp bàyyi faal la. yow man ngaa dem seen biir toog di naan café doo ko yëg te mais ki doo ko gis fii ne Baye faal yu bari bu ñu ñëwee Ndakaaru dañuy tiital nit ñi <laughs> ñu ñëwoon jub jub man jub man fii ne ay temps bi ngay xale ba mu mosaan gis ku rastaw. Ah. bu ñuy fubal boo rastaa damaa. du bokk nga xam ne naa rasta baa ngi du bokk. parce que ñun ay rasta wayu lañ ko jàppee. Ah. tux nii tux. Mhm. man bis bi ma gis nit kuy tux ciy tabax. Ah. maanaam dama tiit li ma daw mat na deux kilomètres. Mm. wallaahi foofu mën naa la ci leen. daw ba ak fàq laa gis tey. Mm. man day tux ñu tux tabax diw. yaa ngi dégg eh. te loolu lépp ay tolluwaay la léegi nag mm. jigéen ji nga bëgg ñu indil la ko nga mm. takk ko dafay def effet bi jigéen di def ci yow day tax ñaareel euh, man ngaa nekk jàmbaar bu fekkee mën ngaa bañ a def dara mais mën ngaa dem ba ngeen yàgg nag mm-hmm. li tax ñaareel yàlla baax yàlla digleeb ñaareel léeg-léeg da ngay takkum ñaareel mu relancé mm-hmm. nga nga xam ne mm-hmm. da ngay relance ci moom soo yàggee ak awo bi nag mën nga dara mën na laa bañ a dal mais ñàkk koo na ba tax bari na ñoo xam ne bu ñuy dem di doxaani fii ne li ñuy yëg ci ku jigéen ka ñuy doxaan mm-hmm. buñ toogee ak moom rek mën nañu yëg seen bopp toog nii rek te buñ demee ci seen soxna pour ñu yëg seen bopp faaw ñu def ci coono bu bari mm-hmm. loolu góor ñi may déglu xam nañ kon daal miin da ci am miin da ciy am mm-hmm. am na ci ñoo xam ne nag du miin du dara jox leen maanaam njëmal jël euh, ku ga ku dàq Sénégal ku dàq Sénégal mm. est que faay dara dàqu faay dara non bàyyi ma lim rek ma Viviane mag la. non soxna may ah Sénégal soxna may Diop Zeyna ngay wax. Zeyna Ndour ak Adja Diallo ak. Adja Adja Adja Adja ci catégorie bu yë bu njëkk la bokk. Effenberg la bokk ngeen yaakaar ne rafet. non kiwin bis kiwin na. non man ah kiwin nag kiwin moom sama kii woon. sama xarit la woon de. ba ñuy gisante du ma ko ñemee wax yooyu. waaye. gis nga yéen da ngeen. doomu Aliou Cissé bi baax na ah, wax la gis nga Aliou Cissé daam doom ji rafet. am na doom ji Aliou Cissé entraîneur. waaw. alors li yëngu après nga woon na photo bi ba xam. Aliou ne Aliou moom dama ko ñemewut. xanaa boo koy kii moom nga ne ko sa papa àgg fi ba mu ne la nekk fi nga doog a dem. nga soog a dem non yaakaar ni. nga nga xam ne gis naa wax joo xam ne Marseille Fara kii bi Coupe d'Afrique bi. ñi seetaan ba ba wax duñ dugal El Hadj Diouf. waaw El bi nga yaakaar ne. football moom ñi nga xas ba xam ñi ñii ñooy mën a football di dem mais taar taar luy romb nit la rek di dem luy romb nit gis nga jigéen ñëpp jaar nañ ci taar mhm. diggante dix huit ans dix neuf ans vingt un ans vingt ba vingt six ans en général jigéen bu rafetee ku ko gis bëgg ko mhm. ku ko gis xaw a dee mhm. bu rafetut ku ko gis bëgg ko bu rafetee bu nee nit jigéen ju rafet bind la ci diggante dix neuf ans bi muy am bac noonu ba ba wen nangam moo tax université danseur université. <laughs> waaw <laughs> ak ci àdduna. université maanaam yow li ma gisee daa mel da nga daan laaj numéro ñu lay bañ a jox de ni ngay waxee nii. non man nag yooyu man aw fit yàlla dama ko mooñaale. Ah. man moom yooyu ñoo dara yitteelu ma ci man. Hmm. Euh, lu ma ci bëgg. na ma ko bëggee laa koy doxee lu ma ci bëgguti nii laa koy rombee man ab hmm. donga laa. ab man waaw. bul euh, <laughs> gis nga mais université. Hmm. dañuy dem jël jigéen ñi daanaka ci moment dañu rafete ñu indi leen ñu indi leen voilà moo tax diina ju moo tax diina ju bari fa lay wadde <laughs> waaw au lieu nga ami diplôme eh. mais da ngay gis dama danaa na may nekk euh, école eh. damaa dem université rek di commencé di kii fekk jiñ ko <laughs> jiñ ko wujj yaay bi nga commencé di kii di perturbé wu fekk dafa am la <laughs> dafa dansé de eh. jigéenu dix neuf ba wenn cinq mm-hmm. jigéen jooju mm-hmm. bu rafetee rey góor ñi bu rafetut ku ko gis bëgg ko moo tax mm. jigéen ñaareel bu ko temps boobu rëccee te nekkut ku rafet waaw ci la ko jëkkër di te ci la ko jëkkër di te voilà moo tax jigéen ñi temps boobu nañ dem sëy mais góor ñi am na sens ci góor waaw góor góor dafa am gis nga góor dafa am moment moom tamit boo xam ne bu passé ba ay ay vingt vingt ans vingt jëm vingt cinq ans ba vingt six que ni joueur Sénégal bu Elimane Ndiaye ñu koy kii jëloon nañ fi seen i ak yooyu quoi façon yooyu. Ah non ñooñu dañ leen a bëgg a rek. Ah, seen xaalis leen soxla. waaw ah, ñooñu dañ leen a bëgg a nax waaye da gis ñoo xam ne dañ lay gis nii rek bëgg la te yàlla tax. Mm-hmm. te jigéen ñu bari duñ la mën a gérer duñ la mën a kii mais nag ni góor di yëgee. Mm-hmm. di di di góor xam nga góor mala la ci bu doon mala day mel ne mala buy rëbb la. buy rëbb la voilà dafa am mala yoo xam ne duñu rëbb am mala yoo xam ne depuis ba am ay 30 ans ci di ñu am problème ku góor ki sawaay di jow juum jóglu di envoyé message di dugg fu ne pour jotaat ci soxna si loolu moom mbëggeel la wala lu ko war la euh, euh, Cheikh Tali waaw yëmbal ak Paris waaw nga dàq dàqante gi weesu na ko waaw waaye boo muy yëmbal dëgg buñ ne laa da dem Paris mm-hmm. boo demee teg sab saak di nga nam mu yëmbal loolu miinante la <laughs> loolu yàlla moo def ci miineel mm-hmm. euh, koo miin rek mm-hmm. ak loo miin rek doo ko mën a bàyyi Hmm. lan moo tax sànq na nga wax ma ne léeg-léeg ñenn ñu doyal ci mbëggeel bi. déedéet maanaam du question dawal waaye ci sexe. Ah. njàmbaare gi mooy des. njàmbaare gi mooy des. loolu dafa am am na ñoo xam ne indil seet tey tey tey mënuñu ci dara dañoo am télé. dañoo télé loolu nag li koy indi. Hmm. am na ñoo xam ne seere bu yàgg. seere ballottement yaram buy diis ndigg luy métti. dama lay wax benn affaire góor ñëpp ku mu neex dee ko def. nandalu nandalu. jël xobi lay duur. xobi lay duur. jël daqaar. daqaar boole ko togg. boo paree bàyyi ko ba mu sedd nga jàmb ko ba mu yegg nga xent ko ci pot wala wala butéel naan ci ba sa biir fees waaye mm-hmm. bala ngaa naan nag na fekk nga lekk ba suur mm-hmm. nga bàyyi ko mu tekki la tekki la tekki la tekki la ba bàyyi mm-hmm. nga toogaat lu mat deux semaine defaat ko toogaat deux semaine nga defaat ko deel xool moom kay di nga yëg moom ne moom moom tabarkal la parce que góor lépp luy tekki góor day yokk ngóoraam day yokk ngóoraam góor seere jigu ko lépp luy daw biiru góor Mhm. day yokk ngóoraam. day yokk ngóoraam voilà loolu mhm. moom ku mu neex dee ko def foo ko lay def doo am benn jafe-jafe ci sa wér gi wér di yaram. Mhm. même dëbi dëbi suukar rek. yu bëree bari loolu da koy faj. da koy nandalu da koy def. léegi nag bu dee affaire ngóora nag jafe-jafe boo ci am il faut ñu waxtaan même prostate même diabète même tension yooyu yëpp boo ñëwee jafe-jafe boo ci am rek suñu waxtaanee dañ lay faj incha allah ba mu wér bagage yi na Paris dañ dañ loolu yëpp moom am problème na tamit ñoo xam ñi ngi Paris euh, ñoom jigéen duñu yëg bànneexu sëy jàpp na ne mënatul nekk quoi. jigéen ñu bare bari seere moo tee ñu yëg bànneexu sëy wala infection bu yàgg. infection bu yàgg voilà walay rab. Mm-hmm. walay rab. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi rab tamit euh, lan nan nga ci ñëwee bagage yi day ñëwaat Europe. bagage rab waaw càngati. waaw rab moom képp kum dal. ak bu dee dalaa teree am jëkkër bu dee da ngay mer. bu dee day métti sa bopp toujours toujours sëriñ su bari ni ñu jafee la rab ak yow ni nga koy yombale dafa kii quoi da nga mel ne sangu sangu waat mu tàggale koog yow. tey fi nga yenn. fa gis nit ñi sangu rek. dégg nga ñu doon yuuxoog tël tël yëpp voilà loolu la demee man rab li ma la wax bi ma ko dalee de ak léegi yaakaar naa ne bu ñu ko doon xool ñu ngi ci mille nangam personne mm-hmm. retour yi nga xam ne dañoo ñëw ne fajuñu mm-hmm. wéru maanaam wéruñu mm-hmm. matul may wala vingt ci wala vingt ci lay toll voilà te da nga leen di téyewaat continuer ak ñoom ñi nga xam ne seeni rab du faj ci bis bi ci wér ci bis bi duñ fi wax rendez-vous ñu bëri benn yoon bi ñu fi ñëw dootuñu fi ñëwaat ñu bëri sax Louga tey jii am na ko xam ne Portugal la jógee sangu dem na. dem na te day am dem bi day wér. Hmm. man kay bu dul wér ma ne la yow mii lii la topp. waaw du wér. du wér ci nangamu suur yi nga ko yi ko foog. Hmm. il faut nga jël lii nga def ko ñeenti weer nga dellu si ñu def nii def nii def nii. Hmm. man moom li ma yàq. Cheikh Talif mooy samay wax day leer. day leer li ma man laay wax. li nga xamal lu may bañ. waaw ndakaaru xat ci man. dugg ci koñ ba mu yàgg seen benn waay di tafu yi làqutoo. <laughs> nit di la woo doo ko ñemee wuyoog ma yooyu xajuma ci neexuma deret mm. xëy na waaye nag man lépp lu ma la wax ci àdduna jàppal jàppal waaw du ma wax lu ma xamut waaye rab mm. ñu ci gis ci nit moom mm. wax dëgg yàlla dafa mujj yéemu parce que man euh, te bi ma xamee ba léegi nit yi mel noonu laa lay gisal ah. mu yokk te gisuma benn changement ci yow te gisuma tamit foqat ci yow. comme ni nga ko waxee seex daal yow laa yaa ma a génn yaa ma njëkk a joxum micro. Mm-hmm. nit mën naa ñëw naan la jotuma seex baaraak. wax ma nangam ak mere ma ci waaye dama damaa nax. Mm-hmm. damaa nax. déedéet loolu moom man oh. la jot normal moom lu ciy pexe. parce man léeg-léeg nit day wax ma jël numéro personnel yi fexe ba sonn. sama rakk damaa woo fan ma ñëw moog sama jeneen rakk. Touba keroog bi ma demee Touba. ma defe ne loolu lañ may doyee ñu ne ma danga bëgg daal ngay teel a yeewu ma ne ma ne amul problème waaw su ma dee su teel tëdd jotee ma def ni yéen di tëdd waaye boobaat mm-hmm. du ma ni ni leen nit ñi def lañ may def dañ romb dañ may romb waaw li ma tee tëdd guddi mooy nekk ci sama kurus mm-hmm. looloo tax nit ñi dama xëy si voilà léegi mm-hmm. nag bàyyi teel ak bàyyi maanaam yéen neex a dajewut rek ku ne xam ne ne lalu vingt trois heures min mi daa neex dafa neex waaye nag bu fekkente ne bu 23h bu jotee nga sàngoo sa mbaj. Mm-hmm. ah léegi nga xooloo gars yi de ndax. <laughs> nit ñi moom li ñu bëgg mooy bu ñu ñëwee wax la aajo. Mm-hmm. bu caaxaan jeexee dëgg des. Mm-hmm. boo ci toogee ne allahuma yàlla wuyu la. looloo leen ñor ay teel naa yeewu teelut yeewu am nañu sëriñ su ma dàqa teel a yeewu foofu te duñu gis juróomi. duñu man moom. teel a yeewu bokk samay bagage loolu moom wax dëgg yàlla. nit ñi dañ ko xam fukki at ak juróom-ñeent ci ren jii. fàttalikuwuma fu ma guddi fekk ma tëdd bu ma wir deeg bu ma wir dut lépp damay toog moom di xoolee loolu moom yàllaa ma ko bindaale moo tax man tëdd dara koy fexe ba ñi lay jot fexe amaat ci rek waaw non ñi ngi jot nag seex ah, man seex ah. lu ëpp ci samay damay damay wuy appel bu baax sax hmm. mais problème bi mooy nit ñi léeg-léeg bu ñii toog hmm. nit day toog nii hmm. di la wax problème ci sëyam di la wax problème mu palaasam di la wax ay métti itam téléphone bi di sonné mënoo jékki jekki rek décroché ko il Mm. il faut nga bàyyi ba kii eggale diggante bi bi bi kii di pare mën naa am bu wootee waatoon mm-hmm. nga jël ko nit ñi léeg-léeg bu ñu insister rek danañ ma jot dinañ jël dinañ la man dinaay wuyu incha allah mm. kon ngeen bañ ko defal audio yu gudd yeeg yu mel noonu te euh, ku nekk Sénégal ba mën ne déplacé wu ñëw gisi ko ci Madieye Sall euh, fekk une semaine rek ku ñëw Madieye Sall fekk ko fa ku ñëw Rufisque tamit fekk ko fa kon Cheikh Bara Ndiaye léegi nag euh, kundug njare ak dàqu ndam nag yooyu laa bëgg tamit nga waxaat ñu ci njëriñ bi kundug njare pour ku ko soxla bagage yi nag pour ponkal la kun nu njare moom la. Mhm. boo xam ne sun waa dëkk ko daa defar. Mhm. ba nga xamee ne tukki daa jafe woon boo tukkee doo am téléphone boo wootee. Mhm. amul whatsapp boo wootee. duñ la siir ci télé. waaw amul téléphone sax fixe booy woote. maanaam boo xasee ba tukki dañ naan sànku na. sànku na nit moom bu la tàggoo tukki mi ngi ma ne màkka boo ko boo fa daaneem da ngay da ngay tàggatoo miraas sa bopp ndax man daam dootoo ñëw ndax dañ naa àll seen ndaw. booba lañ daa def. d'accord ndaam nga xam dañ la koy jox ne la mm-hmm. foo mën a dem ci àdduna mm-hmm. la ngay wuti di nga ko am na nañ ko kundu njare la ngay wuti da ko am mm-hmm. doo dajeeg lu lay lor te balaa ngaa da nga dellusiwaat ci dëkk bii faatoo ci sa diggalal bii kon dëggal ko kon loolu mooy loolu mooy bagaasu kilifa la ngeen a ko xel te ah. foo mën a dem en général ñi ko amee fuñ mën a dem buñ fekk ci daayira bi ñu cent dix huitième personne. Mhm. danañ yàlla dana leen wëlbati di wëlbati bañ nekk ci tedd. léegi boobu moo la déggoon. tey ah. par exemple ku ko bëggoon bëgg doon député mën nga ko cee falaale moo doon député. ndax xam nga bëgg doon député leneen na koy def. Mhm. waaw leneen na koy def bokkut ak man ngaa bañ a doon député rek. waaye yàlla daal du la gannaawal. ndax li cër yi toll na député mat na junni. Mhm. waaw mën ngaa perte bu député bi yor beneen cër. yor bu ko gën. waaw man la demee léegi dàkku ndaam nag. dàkku ndaam gàllaajug buur la. yu mag yi la nag ngeen bàyyi ko xel yooyu waaw googu gàllaajug buur la en général. Mm-hmm. ñu koy takk tey bu doon tane dama la ko defaral. dama mm-hmm. naan la boo jëmee ci mm-hmm, combat wala nga ci déclaration wala mbir mu yéeme. nga takk ko nga takk ko waaw. kooku nag ak daj da la mooy maanaam dafa am yoo xam ne boo ko boo ko boo ci armé woo ba noppi. nit ngeen daje sax seen mbagg yi dóorante donc mën na mën naa tax kooka yor poignet de côté bu dul wérati. armé wu la. armé wu la waaw. boobu ngeen bàyyi xel ah. boobu mooy yi nga xam tem nga laal m beeg yooyu daal ngeen bàyyi xel boobu ah, pour la joxañ yu mag day daan hmm? waaw noonu moom kañ tabarkal la yooyu moom gàllaa ji mag la hmm. amul werante boo balaa nga na koo defar loo demal woo ko ma mag hmm. nga téléphoné ko ne ko dàkku ndaam loo ci xam wala nangam tey jii tey jii te jii am na koo xam ne euh, yàlla man na koo mën na koo jox ak xalifa ci Sénégal gii tey jii ci bëccëg toog na fii Mm. di ma ko defarloo. di la ko defarloo ma ne ko nag xaju fi damay dem ba France. Mm-hmm. bu ma ñibbisee laa koy def. laa koy léegi mu ne ma kon téel li ma la jox ma ne ko loolu bu ma ko téyet damay dem ci tukki ba mu neex ma lekk su ma ñibbisee. waaw dañuy coowoo. dañuy coowoo mu ne ma kon. Uh, bu ma ko téyee damay bañ ginnaaw bi bu ma ñëwee nanga mu jël ko jox ko soxnaam mm-hmm. waaw ma jël ci li ma ci soxla mm-hmm. li ci des ma jox ko soxnaam na ko téyel ma ko bu ñëwee jël si ko defar loolu moom amul hmm. xanaa nga bañ a xam sëriñ xam nga am yoo xam nga Sénégal na xamuñu sëriñ xamuñu sëriñ xam naa ñoom xamuñu xamuñu dañuy dañuy ñàngal nit <laughs> di jéem a ñàngal mais hmm. nekkuñu nit ñu danse hmm. xam naa maanaam xamuñu par exemple boo ñëwee senegal ne dangay ngay noos yow xamoo almadi daal miinoo almadi tam <laughs> nga dem may ga yi nekk yaraax ak yooyu di fa <laughs> lakk lu fam nen defe ne noos nga léegi nag bu dee bu dee nag caddo yu caddo yi dëgg euh, dañuy xam almadi. dañuy xam ci ko xam fii xam ah. maa ngi gis publicité sax xam dëkk ruq-ruqaat yu yu baax yi. waaw mën a dem noos. Hmm. loolu mooy sëriñ dafa am ñoo xam ne bagaas yi ma yor man. Hmm. néew na gone ku ko xam. c'est très rare ngay gis nit yónnee la xaalis ne la defal ma xalwa. dégg ngeen ko xalwata. voilà yow xalwata ñaata fan ngay dugg. xalwa damay def xalwa ñetti fan. ñetti fan def xalwa juróom-ñaari fan. Hmm. waaw. moom pour dina ñaq wala mu ñuqi bu baax de. ah non ça dépend. dina laal M bi ko jëm kaw. non man xam nga seex. waaw adduna lépp adduna xaalis du dara. xaalis du dara. xaalis ay xaalis ni du dara sans dépend ci ngay defal. Mhm. li nga koy defal ak ki koy defal kan la. ak lu tax nga di ko defal. ak lu tax nga ko defal la la fa. billaahi wallaahi tallaahi ah, am naa nit ku xam ne. defal naa ko dama koy defal daanaka li ma koy defal sax xalu xalu waa ko a sedd te du ko yëg. ci jaaroo ba mu nekk nii ah. du ko yëg. Mhm. maanaam du yëg ne def naa ko. li ma wóor mooy kii damaa jël boppam wéer ma mhm. du ma nekk ci àdduna sama kurus ne fi mhm. muy am jafe-jafe ak lu mu a xew rek dañuy nekk ci mbiram loolu moom mooy problème bi mais ñu bëri dañoo yaakaar ne nag may fay nangam ma def nangam xalwa kenn mënu koo fay mhm. man seex boo ma fayee 3 millions ma nekk ci néeg di la defal jox 10 sama gannaaw du ma mooy problème mooy bi de moo tax loolu mooy tax nit ki ngay nit ki ngay defal na woor wóor ne rek xam nga léeg nga xool ni mbirum nit xam ne kii. Mhm. Euh, day war. day war mhm. am ci koo xam ne da xam ne kii te dëgg-dëgg. Euh, dafa yàkkamti daal dafa koo xam ne da lay ñaanloo bu nee pip yàkkamti jim lay wan da ngay xam ne kii mun mbirum yàlla xajut ci mbirum yàlla xajut ci parce na ñoo xam ne kat dañuy mel ne maanaam yéen la victoire tamit teg alors waaw bi dugg na waaw léegi nag ah man boobu ah, man la sawaay hmm. noo defoon nga ne ay kii man la jëlal ma joxaat la man dama a damay damay jégalu am na maire bu ma mas a jox ab xaalis mm-hmm. xaw ma quarante mille la woon a te xaw ma daal di ma koy jox ci ngoon gi nii xëy suba ñëw sa waay na ah waa bi léegi ah, a <laughs> man de ma ne ma maa ne gi mu ko tegoon na ko lii jëlal mu jël mo wañ mo wàññil ah. mu nekk la ma joxoon mu wóor ko ne lii moo ma ko joxoon démb ma ne ko jéggal ma mu naan déedéet wallaay kay dama ma ne na si jëlal rek parce que xam naa ne am na yitte bëgg naa lu waaye li ma jox daa rëy ci moom <laughs> wala yàkkamti na te wax dëgg yàlla nag man moom man yàlla moom dañ na boo boo ne ko tooba saxal baa baa nga sulli da nga ko sulli waaw hmm. waaw noon la ñaan yàlla bañ ko ban ñaan yàlla ak ñaanlu yàlla te ku hmm. mënoon nga ñaanal sa bopp mënoo sa yaay ñaanal la mënoo sa papa ñaanal la façon yi mais pour côté boobu tamit du la ci ñëwaat ñi nga xam ne que da ngeen leen di ñaanal te duñ jubóog seen waajur yi ñoom du leen di jafe-jafe du dara non non yooyu yooyu yooyu du dara. Mm-hmm. nit dana jubóog waajuram ba tëdd waa waajuram di tëdd ci kawam du du mën a faj soxla. léegi <laughs> ñoom ñëpp daal di jaxasoo quoi. <laughs> yooyu daa am ñoo ne daa koy nappe maire yi. pour a nekk dictateur ci seen kaw am na yoo xam ne maire yee koy nappe booy yi pour bëgg a nekk dictateur. <laughs> boo amul ngërëmul yaay nga xam doo am ñenn paa yi naan la sa jëkkër bu la gërëmut doo. yooyu ay nappate daanaka da cee ëpp de <laughs> am na ci nag na ci lu ñu am ne mais bari na discours yoo xam ne eh. paayee koy ràbb nii rek pour nekk pour pour pour pour not maire yi am ci discours yoo xam ne eh. paa beeg maire bee koy ràbbandoo pour not booy bi naan kay bu ñu la gërëmu rek dara du baax te da ngay gis kiñ gën a gërëm mu ngi ci koñ ba eh. mën ta jënd saakum ngooñ <laughs> <laughs> waaw am jot loolu góor dama lay wax benn affaire gis nga góor dëgg du dégg ndigalu yaayam hmm. waaw góor dëgg waaw day dëgër bopp góor dëgg Mm-hmm. bu la sa yaay ne jëmal nii bàyyi ko fa jëm nee mm-hmm. loolu Youssou Ndour naan nit dina la bëgg ba sànk la mooy yaay man mii sama mm-hmm. yaay la mu bëggoon ci man ba ba ko doon def te ah. ji du ma jënd saakum goñ moom day bëgg dayira bu mu séen jàpp ne lu baax la ne demal <laughs> màggaluk sëñ diw gu mu dégg la dañuy baas demal baas sëñ diw tey lañ koy siyaara ji eh. demal ma siyaarub soxna Faati Mbàkke siyaarub Daaru Tansil siyaarub Mbàkke Kajoor bi eh. mbuub ma bale ba maanaam moom programme boobu la ma <laughs> <laughs> barke sëñ Tuubaa xaw nga ñun waa guy mbind lañ hmm. màggalu daaru tansil mu ne ah daaru tansil tey la siyaare ji demal yóbbu addiya ba hmm. màggal ga baas ba nag ña ngay baas di <laughs> buñ baasee ba gi mu wax ba nga ñëw màggal si mun léegi ña ngay raxas cin ya eh. waaw day na dëpp nga fa di raxas cin maanaam programme boobu la mat la jàpp ne moom lu ndeysaan loolu la xam ne lii njariñ la lu lay jariñ mais xamul ne moment bi nga toll ak posture bi nga yor ci àdduna eh. lii arrangé wu la nga xam ne benn affaire la gënoon a bëgg ci àdduna mooy doxu mbokk tabaski nga ne ko dem naa kër Modou Lo Assa Jaxate dem naa sama kër nijaay euh, Alaaji Saaxo mhm. dem naa seeti Baye Bass Jaw maanaam daa mu daal di kontaan te loolu nag wax dëgg yàlla loolu joxewitam dépasse nag yàlla gën ko aar njabootam waaw yàlla moo nekkoon programme am ci man mhm. léegi mais boo ko fa bàyyee jëm nee mhm. da ngay dem ba nga xam ne nag léegi yow li nga bëgg da nga koy am yaay yu baree baree bari dañuy bëgg seen doom yi ba tardel ko voilà mas na maa gis benn booy buy liggéey liggéey mere fa ànd ak yaay ji ñëw di ma ñaanloo yaay ji naan moom daal daa am ku fa nekk ku bon xol nangam ak nangam ma ne may ma daa am lu ma koy wax mu génn mën a ko sa yaay ji mën a yàq sa liggéey bi fexeel ba loola naqare ci sa place bu mu dugg bu mu ko yëg loola fa neex bu mu ko yëg mm. boo demee sax nee ko toxal nañ place bi bu mu xamante foo nekk booy bi après ah. daa mujj naan ma yow ñàkk ñàkk ñàkk nga ñàkk a conseil nit wóorut dal mhm. waaw ah, te loolu doo ngay bi ndax dafay day yow jaar foofa di xool e kële ma ngi lay xool waaye man saa yu ma ñëwee damay fekk yaay liggéey gaa yaa ngi toog xamul affaire bi da lay ay problème yoo xam ne moo tax góor du déglu yaay du déglu yaay góor goo dégg muy wax naan saa yaay saa yaay mhm. ba ko fa ba ko fa <laughs> góor goo dégg mu naan sama papa sama papa ah, ba ko fa nit bu amee vingt ans day assumer ay responsabilité voilà assumer responsabilité yi nag tegtalewut nga bañ a nga bañ a sa ndigalul baay parce que mm. baay day xam li xew mm-hmm. waaye nag en général tamit boo ko jegee dëgg dëgg dëgg dëgg day mm-hmm. bëgg maanaam lépp lu day mujj nekkob dictature moom tamit lu mu la digal mm. te àdduna réalité yi bokkut mm. li wóor daal mooy gone gu mu mën a doon boo bàyyee tux fexe ba doo tux fexe ba doo naan mm-hmm. fexe ba jigéen ñi xam nga doo doxaan kenn du ko wax waaye nga xam leen xam leen jigéen dañ koy jàng ni ñuy jànge oto mu koy jàng oto. Mm. barki sañ tubaa bii lay boo xamut jigéen. Mm. voilà demal jàng alxuraan. Mm. te bind kaamin bi bind hadis yëpp ñëw toog. sa baay ne doo xool jigéen aaye la jigéen ñi gis nga jël bi ngay njëkk a am. bu ne laa demal saaga sa baay da ngay dem saaga ji. <laughs> barki sëñ Touba boo liggéeyoon ba am lépp. da ngay am jabar maanaam day jàpp da ngay jàpp na yow moom sa yaay ak sa baay ñëpp da nga leen a war a éliminer des sa jabar ji parce que nga naan. ñii xamuñu bànneex bi may am ci kii. Hmm. fekk dañ la koo jàngalul. dañ la koo jàngalul de gis nga da ngay gis koo nga xam ne. day dem di liggéey ba nekk ministre. Hmm. maanaam jàng la def. Hmm. jóge fa dem dem France. musul fréquenté jigéen. gis nga jigéen ji muy njëkk a fréquenté. daan maanaam loolooy waral sax musée yu bari di ragal madam ci gàttal. <laughs> musée yu bari di ragal madam waaw musée yu bari. di ragal madam maîtriser jigéen moo tax wayu yu bari. maanaam jigéen ñu bari di ragal wayu parce que dañoo xam kii xam kii xam kii hmm. voilà jigéen ñu bari hmm. dañoo ragal wayu hmm. wayu woo seen bu amee gel gel bi lu day dem sàcc sax di ko andil wala muy leb di ko andil muse yu bëri madam li ma lay wax ni ko tiktok waaye tiktok leen muse yu bëri dañoo ragal madam muse laaj madam yi ah. madam kay <laughs> <laughs> mais booy discours yi nga xam ne dañoo am fukki gel ak juróom xam kii xam kee eh. xam nañ dañuy mën a maîtriser jigéen léegi nag góor kenn du ko aaye jigéen cent pour cent mm-hmm. da fexe ba la paa ba waxoon doom ji rek looy def ci jigéen mm-hmm. wax ma ko te lu ma la ci wax nga def ko mu def ko waaw maanaam looy def ci jigéen rek yow wax ma ko mm-hmm. dama ko bëgg a fóon tey nee na ma naa fek fekk ca koñ ba ñaan na ma xaalis lu loo ciy def rek yow wax ma ko waaye lu ma la ci waxit yow defar rek defar xam nga booy booy doxaan ni gel bi yaakaar na yow rek ànd fekk da ngaa boot benn paa àndaale. <laughs> day am ay conseil paa nga yor. <laughs> Ah. <laughs> kenn nax. moo euh, waaye tox moom. jërut isin. jërut waaw naan. Mm-hmm. jërut isin. Mm-hmm. jigéen. jar jege. jërta ja àndal jërta bàyyi. jërta bàyyi waaw da leen di jege di xam ni ñuy dugalee ko génneeg ni ñuy naxee gaañeeg yooyu waaye ah. saabooy booy wax jigéen bu ne laa làmp poche. Mm-hmm. lànkal. loolu moom man maa la ko digal man mii. waaw buy lamb poche waaw laa ci nag am na lu ma ci xam de. <laughs> mais am na technique lu ma ci xam nag. Ah, def ah. xam naa ko de. xam naa yu Saalum yeeg yu Kajoor yeeg yu Njaamur yeeg yëpp jigéen ju ne la jox ma nga nga rocc rek jox ko du la respecté. du la respecté loolu la yàlla def. Ah, jigéen a bañ jigéen waaw. saax taalif man maa la wax fii jigéen joo xam. Mm. ñaan gim la njëkk ñaan. boo ko mayee yàqu nga. loolu mooy gàllaaj gu toj mm-hmm. boo ko gàntoo te maîtriser ko ba problème amut ah. loolu mooy gàllaaj mm-hmm. gàllaaju ànd mm-hmm. jigéen bu la ñaanee cent franc gàntal ko ne ko lu tax nga ma koy ñaan amuma ko wala maanaam fexeel rek wutal lay wu jub daal ba bu ko may te loolu bu mu indi problème da ngeen di mën a ànd yi dem mais jigéen bu la laajee nga jox ko rek yàqu nga yàqu foo fekk jigéen juñ gate sëy ba normal bu la laajul nga joxe nag bu la laajee bu la laajul nga joxe nag bu la laajut nga joxe ça dépend ni ñu koy joxe jigéen man ngaa ñëw jox ko joxin wu noobul mm-hmm. day xam ne yëfi noobul nga def mm-hmm. waaye am na jigéen joxin joxin wu faible woo koy joxe woo xam ne mm-hmm. day mujj di créer ay affaire di la ko jox jigéen ak góor dama lay xam ne affaire jox joxe leen di boole waaye jox joxe leen di tàggale ndax ah, posture bi ñuy ànd tamit jox jox ko déterminé wallaahi jigéen képp ku koy jox li mu bëgg xaalis nii tegu la fenn même bu dee jëkkër ak jabar jëkk seetlul jëkkër jëkk sëy sëy boo xam ne kilim saal bu rafet oto poset bu fees della ak xaalis respect amu ci. amu ci lépp amu jigéen ngeen di ànd di kolo kolo fu mu toog sëriñ naan ko ñaanal ma loxo ba daa dëgër. defal ma ci nàngam. day respecté sëñ bi. da koy respecté. loolu yàllaa ko def ci ñoom. waaw mm-hmm. ah, Cheikh daal dégg nga li wax mais moo tax jigéen euh, parfois moog sëriñ baatu naxaate lu cëpp ñoom ñaar euh, lan koy accusé. comme ñu ne sëñ bi da koo nax maanaam mën nga indi député. ne sëñ bi da ko nax ba lekk xaalisam. mën nga indi ministre sëñ bi da koo nax ba lekk xaalisam. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mën nga indi président ñu ne sëñ bi da koo nax ba lekk xaalisam. jigéen tamit kasaalika te parfois ñoom ñaar ëpp ñu fi xel quoi lu waral loolu. ba di nax ñoo xam na que ci domaine yu bari cadre lan fa. waaw xam nga ay nax moom foo ko déggee. kay naxee daa tiim kami kañuy nax. fii ne sa doom danga nga koy naan nax naa ko. waaw jigéen ñi. dañoo tiim góor ñi. di leen nax ko mi gone. sëriñ si. tiim nit ñi di leen nax ko mi gone. voilà sëriñ leen cat la am mooy benn nopp lay doon te hmm. kilifa du doon benn nopp hmm. kilifa ñaari nopp lay am hmm. bii ki wax ba noppi moo ko moom bii ki waxagutu ko moom dégg nga da ngay diw benn nopp loolu kenn du ko tagg kilifa kilifa ñaari nopp lay am yàlla daa aay yàlla daa def nopp nii def nopp nii ba noppi ji gimiñ nekk digg bi di arbitre waaw gis nga kilifa mooy mooy gimiñ gi nopp bii ki waxa ko moom nopp bii ki waxagutu ko moom gimiñ gi at gis nga gimiñ saa bu wengee wuti bii mhm. ah ñaawa ngi bëgg am saa bu wengee wuti fii mhm. ñaawa ngi bëgg am ci milieu bi rek lay nekk ci milieu nopp pouvoir nopp opposition mhm. sëriñ wala kilifa gi nekk fii <laughs> bi euh. bu ne nii wuti pouvoir bi nii euh. sëñ <laughs> baa ngay bëgg a ñaaw parce que sëriñ warta a dem ci pouvoir bi euh. waaye sëriñ bi bu ne nii wuti opposition sëñ baa ngay bëgg a ñaaw ndax sëriñ bi opposé wu sëriñ bi ci sustu milieu mooy gimiñ dégg nga loolu mooy mooy secret yàlla. Mm-hmm. jigéen ñeet. Mm-hmm. maanaam dañoo am problème. Mm-hmm. mooy ëppal. ëppal waaw. que tamit sëriñ day nekk benn nopp moo ko yàq gaaw a gëm. jigéen ëppal. d'accord parce que man fi mu bëgg comme na lay ñëw nga napp ko. mu commencé léegi ne la doo takk ñaareel. nga ne d'accord ngeen dem mairie ba signé ko mu ñëw ne la léegi sa yaay damaa soof. xam nga ah. ëppal la nga a ñëw. <laughs> ëppal la a waaw. waaw sa rakk ju góor ma daf soof. maanaam yooyu ëppal la. ëppal la noonu la leen yàlla bind mënuñu ci dara. Mm-hmm. te jigéen ñu baax yi sax ma nañu yor mënuñu ci mm-hmm. comme moo tax daal jigéen euh, képp ku muy nax tamit yéen ñi doxaan ak dialogue yi ngeen bàyyi xel leen jigéen ñi gars yi tamit ku leen nax parfois ñoom la neex de parce que tamit ki ngay nax bay lekk xaalisam indi sa mag bu góor mu jëm ko nax rek ba xam dina lekk xaalisam boobaa nga xam ne amul intérêt ci kooku am na ñoo xam ne dañuy nax seen bopp lu mu ci mën di doon rek. Euh, li wolof naan lu dul dëgg du yàgg moom laa gën a gëm ci lu yàgg dëgg la kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ci diggante góor ak jigéen wàññi naxante bi tey teg dëgg te léeg-léeg tamit dëgg yëpp koy wut jabar boo ko waxee tam du am de voilà il faut nga. ah dëgg nag léeg-léeg da nga ciy dëgg. am li nga bëgg. waaw ah, da nga ciy dëgg <laughs> naxante yéen dëgg yi. Ah. koo ci dëgg tam doo am li nga ah. nga dëgg ci sa tànk ne tekk ba am li nga bëgg doo ko teg. Mhm. jeex na mais Cheikh yi ci dëkk bi ku ci bëgg jëkkër nag ñëwoon bëgg sëy balaa un mois loo ko jox sangu fi ruusi wala sangu rek sangu rek jigéen bu sangoo bu fekkee dafa ami rab bu rab yi dañee hmm. mu sangoo bayre day am jëkkër hmm. bu amul bayre nag du am jëkkër du am jëkkër hmm. jigéen bu ay gaaf nag mën nga ko dinti non loolu nag xam nga baat la yi ñuy wax yoon mën ngaa toog doo ko gis ay gaaf mooy la waaw léeg-léeg xam tamit jigéen am ñaari jëkkër mu dëddu kenn ñemeetu ko moom wóolootul boppam a xeet boobu yooyu lool nag aw rab la dañ koy faj dañ koy faj waaw am na jigéen ñoo xam ne bu ñu àndoon ak Baye Mass mi Baye Mass tàkk na bu ñu àndoon yow nga fay parce que mm. seen biddiw la mm. jigéen ju jig ñëpp amut jigéen ju jigéen ñëpp amut mm. waaw am na jigéen ñu yoru rab mm-hmm. ñoo xam ne yow boo leen takkoon mm-hmm. mën naa diis nag doxaan mi day diis gan takk gi diis waaye boo fexee ba maîtriser leen bañ toog ci kër gi mm-hmm. di yaakaar ci yow dépasse takk nga yaakaar du mas a tas nga mën nañ laa fekk ci kaalaandoo yóbbu la ci Range Rover mm. parce que parce que si dañoo am rawaxaan yu diis wala jinne yu diis yoo xam ne lépp lu maanaam lu leen war sax dañ dañ koy dañ koy kiiwaale waaw mën naa am ay jafe-jafe yooyu gis na xam ne sa jabar ji dara la mm. waaye téewuti bu dee wàllu wërsëg moom da koy indi bu baax day yombal lépp mm. loolu dafa am adduna si adduna ak a yéeme Cheikh Bara ku yor terrain yu bari nag bëgg ko jaay mu jar ci lu gaaw ak ku am terrain am coow bëgg a taqali ko coow li soit mën na la cee sax ne la booyoon ko boo ko lijjantee nga jël sa wàll ma jël sa wàll loolu daal da nga naan aajo ju faju rek ne da ngay xëccoo suuf léeg-léeg mhm. xam loo xam ne secret ayatu kursi ma ko jàngaloon ne mi ngi woon fii léegi xaw ma anam mhm. na sëñ bi toogoon fii de moo ma ko joxoon waaw da ngay bind ayatu kursi yu ubbi mhm. mii mi am loo ci dugal ubbi mii mi am loo ci dugal du ko ah, wax ah, saab kot la boo demoon tey terrain bi. Ah. nga di ko waxaale. nga bàyyi ba guddi nga wàññi ko ñëw. Hmm. gas ko suul ko ci biir terrain bi yaa koy jënd. waa ji bu ko doon jaay téeméeri nit du jar. du jar loolu tax yow yaa koy moom. yow yaa koy nga nga gisub terrain mun engrais lool baax. Hmm. man buñ gënoon ci koñ bi dinaa la woon terrain yi nga xam ne maa leen ni moom yëpp. Hmm. ndax su ma ko wax. am na yu ma bëgg de du de dañuy waxtaan ngeen ñëw Eh, ma defar non man kay tey rek demee ngeen sulli suuf si da ngeen gas pax mi ma jël ca suuf si ngeen sullee waaw ngeen suul am lu ngeen yóbbaale mm-hmm. waa ji bu doon wër boo fayoon dix millions kee di fay wee toog rek dana ñëwaat ne la ñëwaat jaayaat yoo xam ne tamit Mm-hmm. boo fa dëkkoon tey ci kër gi ñu bëgg la faa génnee maake sii na fii abadan ngay defar soo ko defee nit du la génnee ci kër gi mm-hmm. boo nekkoon ci réew ragal ko la refourlé mm-hmm. boo ko defaree sangoo ko ci réew ma kenn du la refourlé waaw kon émission Europe gis ngeen ko kon noonu la demee boo kenn du la refourlé bu dee da ngay yori jabar jabar yi di tasaka fay wala nga yor njaboot muy dem boo jëlee wala daal nga dem ci réew sax bëgg des ci réew ma faw loolu moom nii laa koy waxee rek mu jeex. nii nga koy waxee bokkut ak nag jigéen ji daam am lu ci lu ciy def lu tuuti. lu tuuti dootu doom daa am lu ñu def lu tuuti. Mm. waaye nag li lay wax nii nag. Ah. <laughs> boo ko defee doo ñibbi de. waaw ah, mu doy des réew mi. waaw ah, dootoo ñibbi moom ci àdduna. Mm. man ngay ñibbi de. waaye réew moom moom sama réew lay doon ba faw faw faw mooy da ngay jël sa karaw boole kook derub signal gas ko ci gas ko ci pak comme ça tey bu doon Sénégal fii. Mm. nga dem Masalik wala Grande muske fu ñuy tudd ci réew mi. nga wàqe fexe ba suul ko fa bu dee nag réewi tubaab yi nga xam ne dañ hmm. koy dañ koy karoog yooyu fexeel ba gas rek suul ci réew mi sa karaw ak derub si ñeel nga xool hmm. ba alaaxira boo mutul boo dee sax man muti mën nañ la faa suul hmm. waaye daal fii yaa ngi dund moom barab ba sa barab sa barab waaw ah, comme Assane Diouf ñii ni ñu def ba génne leen na Donald Trump ak Dan Biden ànd ne dañ ah. lay génne doo ah. génn wallahi wallahi doo génn doo génn ah di ngeen ko kon amul daaw sa bopp dootu sa bopp ci réew la bu dee dëpp ci kër nag mais bu dee bu bu bu ne nit ki na nekk. mën naa nekk ku ah. dund loolu kay. <laughs> seex nag lu moom kuy dundu rek tax ak ñuy wax de waaw. <laughs> léegi ku yor parking. gàllaajub dugal bii. Ah. ku ko am. Ah. boo ko joxee néew du ko dugal du dugal bii de. <laughs> waaw faaw waa ji day dund tey football nga doo ko ko. léegi nag Cheikh ci ku ku kuy yëngu ci sport nag bëgg a dem ci club yu mag yi. parce que am na joueur bu doon football. ñooxoon ko ay rab nga ne ko xuma lan ndoxum si ci fajal ko tànk ya ba mu wér kooka daa yàkkamti àdduna am dafa yàkkamti àdduna bi ma yónnee yónnee na ma loo sama xol bi sedd na buy mm-hmm. ma di ko ñaanal waaye gis naa mu yàkkamti yàkkamti ma ne li ma ko doo ko am ndeysaan voilà xam nga Cheikh mm-hmm. man man mm-hmm. koo xam ne kenn xamu ko par exemple sa soxna tey ma nekk ci moom fii ba at mii dellu si déwén billaahi wallahi Sénégal ku xëy dana la tudd moo xam dalay saaga moo xam dalay tagg mm-hmm. waaye ku xëy dana tudd sawtu mm-hmm. xam nga loolu nag waaye ci at lañ koy def ndax nit ñëpp maanaam ci folog bi la maanaam ci ci ngay ci ngay dem mm-hmm. di ko di ko dóor ab dog la boo xam da ngay dóor muy jàpp maanaam da ngay dóor mu jàpp ñii nga dóor mu jàpp ñii day dem ba daj réew mi ba daj réew mi ba nga xam ne ñëpp lay xam ñëpp lay tudd moo xam nag saaga moo xam tagg waaye hmm. ku nit du xëy suba suba ba ngoon hmm. comme nit ñi nga xamee ne bu xëyee dana lekk suukar baa ma lekk xorom waaw dégg nga hmm. nit ki mënta xëy suba ba ngoon te tuddul comme loolu dafa am am loolu at at laa wax nag man nga kaa toog di ko dagg di di ko dog di ko defar am naa mën naa laa wax fii basketteur boo xam ne wallaahi laa si fii weeru déwén wii waaw nit ñi moom la ñuy añee moom la ñuy reere moom la ñuy ndékkee basketteur bu góor la du ma la tuddal ah. non basketteuse wala basketteuse. dama dama la tudd loolu lépp ay signe la du ma ko wax. damay wax rek ne la loolu maa ngi ceeg ku mel noonu. maa ngi ceeg ay footballeur. ay footballeur dégg nga. Mhm. Euh, gis nga loolu dafa am ci ñaan. Mhm. affaire football tamit. waaw yow xam nga ne man dinaa ci ñaan. dinañ ci ñaan waaye. Mhm. du ma ñaanal gone guy bu dee gone guy jàng football nii di bëgg a dem. di bëgg a dem sangat bayre. sangat nga koy defal ak. bu dee waaye koo xam ne yaa ngi ci bunt. waaw ah? soo ñëwee. nu waxtaan waxtaan wu sérieux même booba joxul xaalis waaw xam nga jour moom sëñ bi ku ko taal am dara ku ko taal am dara ku ko taal tàkk waaw ko taal tàkk <laughs> man hmm. léegi nag danaa mën a jël sama bopp hmm. au sérieux di ñaan di defar di defar ba nga ba nga doon li nga doon tey hmm. loolu moom man dama cee sawar ñaan ci ay ay nitu sport yi mais nag ay nawetaan ak ay mbër muy bëreek ah. man yooyu moom wax dëgg yàlla bayre bayre daal mën na bayre daal mën na waaw waaye la muy laaj moom du ma ko def léegi comme par exemple Sadio Mané bu demoon Bayern na bëgg faa jëlee ballon door ngir nga nattal ko at. Mm-hmm. bii passé ballon d'or bi ñu attaqué beneen at boobu nga tàmbali ko léegi mën na nekk nga xam day jot ci ballon door européen bi. waaw. Mm-hmm. nga dóor ko boobu nga xam amul yaakaar. def li ko xam mm-hmm. am na ñaan. am na ñaan d'accord dafa amul bayre. bayre la amul ok siiw na. siiw na. ñëpp xam ko nii mais mais bayreem. mais bayre mën nga ko res toog naak fan yële ministre bu Macky Sall ma ko da ngaa war a sangoo bayre mu mii ma ko da ngaa siiw comme tey tey par exemple lu mhm. la ko mën a waxee comme Adji Sarr rek Adji Sarr waaw ah, dafa siiw mhm. am na bayre am na bayre ah mi mel ni mën di ba ca Real waaw sa siiw faa ñàkk waaye amoo bayre ma ne ko sëñ bi amoo bayre mhm. mu ma ah, ma ne ko amoo bayre nga war a wut bayre mooy nit ñi am ci yow ak cofeel ak cofeel bu jiggi dayoo ba nga xam ne day mel ne nii soxlaa lekk ak naan akub sëy Mm-hmm. noonu lañ lay soxlaa ci seen mm-hmm. dund mm-hmm. loolu mooy bayre Sadio Mané bayreem dafa des dafa des su fekkee yow mi da nga siifut football wàcc waayeem ca Liverpool sax dese na koo am na mu ko war a am waxuma laak nag waxuma laak nag leneen dafa des bayre bi dafa des dafa des voilà mais mën nga ko assuré Mbappé Mbappé moo bëri am na bayre Mbappé day ñaanlu ah Mbappé men ah oui ñëwagul ci yow de ah déet ci man waaw ay mbokkam ñëw na lool. non non sax du ma ci wax. waaye Mbappé moom day ñaan. day ñaan voilà Real Madrid gii nga gis. waaw li leen tax di gagné gars yi dama la koy wax benn affaire. Real Madrid tur tur dafa am solo. Mhm. Real mooy lan lu réel réel. Mhm. mooy lan. mooy dëgg. voilà moo tax fii ak koy tudd. Mhm. day day naax saa day naax saa yàlla gars yi. day bi ci des mooy. dañoo am mystique di ñaan dañoo am voilà ki leen di doxal ci affaire mystique. mi ngi foofu ci Espagne. Mm-hmm. voilà. Ah. mu ngi foofu ci Espagne mën naa laa jox. Mm-hmm. numéroom jox la léppam bu ma paree fii ma toog daf dañuy ñaanlu ci mystique. ci mystique bu wér a wér a wér. Mm-hmm. dañuy soxla ab jour. jox la turam ne la na ñëw. na ñëw ah, lu tax Mbappé rëcc leen. dañoo dañoo bëggoon mu ñëw ci ñoom. waaw waaye dafa am maanaam maanaam koo xam ne dafa dem ca ca ñële. ci ñële. xam nga waa Paris moom dañ na woon bu Mbappé demee rek ñu dee. waaw. Ah? waaw. dafa am ñu dem ci ñoom ne leen léegi bu ñu joxoon nangam. Mm-hmm. dafiy toog. dafiy toog. ñooñu ñu d' accord. Mm-hmm, accord ok. te ñooñu dañuy ñaan lu. waaw. Mm-hmm. dana non xam nga ñoom xamuñu ñaan. xamuñu ñaan dañuy ñëw ne la am naa man secret mystique. wala mën naa am ci lu nga xam ne mën naa ko def ba nangam am ñu ne la bu nangam amee nangam am. kon moo la déggee Mbappé dañ ko dott Paris. bu nangam amee dañ ko liggéey ne moom moom yàlla dogal na. Euh, léegi sëriñu Paris yi dañoo gën a wala nu mu demee noonu. question loolu dama ne la. Mhm. Paris xamuñu ay xamuñu loolu. Euh, li lii leen bëgg kii defal leen ko daal. ñi maanaam dama lay wax li ma lay wax nii bu du woon télé ma tuddal la tur. ne la mhm. diw sàngam mhm. moom moo daan dem ci waa Royal ni leen wax diw maanaam par exemple Sadio Mané mi ko bëgg dafa lànk hmm. man nga ne xam nga ñoom xamuñu ñaan xamuñu loolu dañuy ñaanlu sax nag tubaab am nañ seen i am suñuy bind hmm. am na lu ñuy def ci ay ay ay ah, xob buñ bëggee si karak non non dañuy dañuy ñaanlu hmm. laa ilaha illa la benn sama ana ñum départ la woon ay benn xafa ay nasr ana ñoom ay ay ñoom Robinho dem nañ ah. foto ji nan bi ñuy ñooñu bi ñuy football nag benn sama benn sama kenn daaw ko tudd. waaw Drogba mi lan moo ko téye woon ci football bi. Drogba day taxaw cent minutes du laal bal. mais day dugal force day mhm. moo yóbbu Shevchenko retraite ak Shevchenko. dama ne la loolu mooy football dafa am ñoo xam ne xamuñu ñaanlu. am ñoo mhm. xam ne ay ay ay bay man ni ma ko xamee ci li ba ci jot a am expérience nga xam ne ay nit a ma ko wax. Mhm. dañuy ña ñëw ma ne la man de Mbappé mii ngeen topp di daw. man naa laa garantiral ne la. waaw dafiy toog. dafiy toog su fi toogee si ñëwaat lu ngeen may jox. ñu mm-hmm. négocier. Mm-hmm. ñu jàpp loolu. nga ñëw wut say sëriñ ci Sénégal. Mm-hmm. daat koy daat toog léegi nag loolu moom moo ko bàyyi foofu. moo ko fa bàyyi moo ko fa bàyyi mais Real dañuy ñaanlu. dañuy ñaanlu mais man xam naa. Mhm. koo xam ne am naa ko fii man mooy sama tubaab bi fi ñëwoon. Mhm. dañ bokk groupe whatsapp bi. waaw ak ka dëkk Fatick nga xam ne moom moo ñu moo ñu nekk interprète moom moo dégg suñu langue bi. Mhm. kooku noonu mais kooku kooku rayal rayal kese lay ñaanal. rayal kese kese kese. ngi ñaanal équipe bu mat a kese bu mag kese. am na année yu daan ñaanal moom moo ma ko wax ana ana ñaanal na Porto ñaanal na Chelsea. Mhm. mais musul bàyyante ak Real. Mhm. tubaab la boo xam ne. Mhm. Euh, bi mu ñëwee ma koy seetlu dama lay wax benn affaire ma ne ko. da léegi yow dama bëggoon nga wax ma xamul xamul président Sénégal yi de. waaw bëggoon nga ñaanal ma diw. mu nekk président Sénégal. mu ne ma kan la. xanaa kooku wax Ousmane Sonko. non non du Ousmane Sonko dama njëkk a jël koo xam ne ab animateur télé la. ab animateur télé. ma ko dama bëgg mu nekk président Sénégal mu génne xool te kooku daf maa xoola. daf maa dégg rek daal ñëw. parce que dafa am ay nit yu dëkk foofu. yu ko am ay maladies yoo xam ne dañ ko dañ faju ci après ñu ñëw fi ñu ne moom mu ñëw seet si ma. dafa génnee mu xool ne ñu ko ba ci xaw ma wax noonu daal ne kii du ko nekk. du nekk. du ma. indi ko keneen. ma joxaat war na mën a nekk. non non est-ce que jëlaatuma photo Abba xaw ma am na keneen ku ma jëlaat. Mhm. sama internet joxaat mu xool mu ne mënul nekk. mënul nekk yaa ngi dégg. Mhm. ma génnee photo Ousmane Sonko nag xool ko. mu mhm. xool. xamut xamu ci kenn de. mu xool mu ne ma kii su ma su ma demee ci montagne ju kawe. Ah, ma def ci nangam kii mën na ko nekk. mën na ko nekk yaa ngi dégg. ma génneewaat photo euh, yaakaar naa Abdou Mbaye xaw ma kii nu mu Euh, waaye mm-hmm. Ablaye Balde Ablaye Balde. Mm-hmm. Ablaye Balde laa génnee. ma jox ko. mu xool xool xool ba mu yàgg. mu ne ma moom tamit xaw ma am na am na ay tegtal yu ma waxaat. Mm-hmm. mën naa koo def mais mu ne ma kii. Ablaye Balde mu ne ma kii moom day am nguur di nguur nguur nguur day dee ci nguur. day dee ci nguur nii ko wax. voilà xool Ablaye Balde Ablaye Balde waaw <laughs> day <laughs> <laughs> mu ne ma kii mu ne génne mu ne ma kii. day am nguur di am nguur di am nguur ba day dee ci nguur. boo moytuwul ko falu dina falu moom même bu jiitewul day am dara. day am dara pour wax la xam-xam dafa yaatu. da kooku fii ne nii xam-xam yi mu yor man. xaw ma ci dara maanaam comme làkk ak lépp. dafa mujj ma ñaan ko ni ko léegi dama bëgg ñu tijji benn groupe whatsapp man ak moom. Mhm. Euh, ku ñuy wax jaabi moo nekk suñu diggante. Mhm. dégg nga après man tamit ma jox tul. Mhm. jox yenn ñaan yi nga xam ne man am naa ko. jox mu mu mu yéemu. laaj ma yow pouvoir fan nga koy jëlee man ko man damay zikar damay leeral ko moom tamit mu may leeral. Mhm. ñoom ñoom nag famille famille famille bi mhm. mooy moom mooy moom. ay famille fajkat lañ ba daal famille fajkat la voilà ay wér nag ay affaire yu lu ñuy xam la ni loo xam ne dañ la koy defal waajal la nga nekk. Mhm. nga nekk léegi damay dem man damay dem bokk ak moom groupe WhatsApp. sama booy yu bari ñu ngi su ma amee su kii heure yi. dañuy bind. léegi may wax kee di ko traduire ñuy wax mu am ñu may jàngal. wala ma am yu koy laaj. est-ce que lii ce que laa est-ce ah, kon daal sport daal man daal li ma bëgg mooy kon euh, ku la indil club de deux mën koy première division ku la indil première division. ñaan ñaan ñaan amul naan mën naa lii mënuma lii. Hmm. ñaan moom mbir la moo xam ne. Hmm. Euh, mais je marque nag. mi ngi mel ne nga naan daal ab ab ab ab Toyota. maanaam bu bees tàq wala Range. Mhm. mën naa dem mm, ku ma ko jox ma dem ci kaw Kaolack dem ci Mbàkke dem ci fii mhm. da ko war a man mais nag am na luy ñëw pneu ba mën naa tooj du dem du dem wala dara lu koy gàllankoor mais ñaan moom amul loolu ay ku ma jox deuxième division ma def ko lii mhm. loolu amul mais ñun ñu bëri de ñaan lu moom ñëpp koy def daanaka jeex na fan ngay ñaanloo lan ngay ñaanloo lan ngay ñaanloo loolu mooy affaire loolu mooy affaire mais daal mën ngaa gis ngem bu joueur bu mu xamagul mu dem ban xam ko ci kaw oui am na loolu am na mu bañ rek am na am na incha allah ah dégg naa léeg-léeg ñoom joueurs yi ak mbër yi dañuy war de. waaw du jeex de war gi ah def ak moom wala dang leen di jéggal. waa xam nga war moom loolu gawuma ko ci ñaan. Mm-hmm. nga nit bu fekkee dalaa wax soxla. Mm-hmm. ba mu la koy wax si diitug jëwam jóg. Mm-hmm. nga def ci baatin ba mu ba loola sotti. bu demaatoon ay ati at bu ñëwaatee dina war wër fekk la ci baar sàngara nga toog sol kilote bu tollu fii takki jaaro di naan sàngara du mm. tee da lay gëm voilà daw naa dootuma ñëwati boo ko mm. fekk da nga faa amut soxla voilà loolu mooy affaire bi bu mm. fekkee daal yaa nge kurus di ñaan mm-hmm. ku la wor ak ku la wër daanaka doo ko faale waaw ndax nit ki jamono bu nekk maanaam nit ki ñëw ci yaw defe ne dara la mm-hmm. ku ko raw fuuf ngi ñëw mm-hmm. di mi ngi ñëw ci yow dafa tolloog rek sëriñum ñaan moom du def naan maay ñaanal diw Mm-hmm. diw ñëw na fi démb ak sëñ boo toog mun naan la hélas Diouf ma doon woog diw woon na ma démb waxul dëgg waxul dëgg mm-hmm. sëriñ xuddu nuñ koy waxeeti sudduurul axyaar xubbuurul asraar mm-hmm. dën ni góori yàlla yi mooy secret bàmmeel yi waaw yàlla boo baree fen sax yàlla du la woon gént ku leer ku ne la bu lu ma gént gis ko lu mu la wax dëgg la waaw bari fen day tax boo géntee dara da ngay gént golo fekk aw fas la waaw fen baaxul sëriñ si tamit ngeen bàyyi leen euh, yenn sëriñ si laay waxal quoi euh, par exemple da ngay gis yow ci nit normal nii rek dëkk ci koñ maa koy ñaanal rek xëy na gënul ci suturaam ay ku mel ne ay Sadio Mané yooyu li defal Sénégal à chaque fois bëgg bës bu mu tax nga naan Sadio maane woo na ma nee naa ko lii nee naa ko lii nanga mel ne soxlawul sutura di wax nanu éviter yenn site internet di la dugal ci benn problème yi nga naan la bës bës boo xam fii Sénégal. bés boo fi am lu mu rëy rëy rëy deux semaines nit ñi dañuy wax ci leneen bàyyi la te la nga waxoon daf fay des di la xaar nan moytu vaar ay maa defal lii Real day gañe ak ay nangam gis nga sëriñ coow li bu jeexee rafetal njoolal amal kër yu rafet amal oto yu rafet gis nga client bi lay woo ñaar la lay doyee soxla bu wér jàngoro bu wér ak soxla bu faj xam nga ne sëriñ si ëpp xaalis ci Sénégal génna ñu télé waxuñu internet mu hmm. yoonu waaw nan bàyyi xel yooyu am na sëriñ soo xam ne ñaari client lañ am ñett Mm-hmm. billaay te mu seen liggéey rek. da mm, wax muy bañ a dañ di leen wax dëgg te et tamit même di wax Sénégal day gagné mu gagné ah. sëriñ. waaw lu mu bu guddee. Mm. ngay lal ak si jaada toog ca. toog ca waaw ku yem ak nit ñi yem ak nit ñi. Mm-hmm. ku bañ a yem nit ñi da ngay bañ yem ak nit ñi. Mm. waaye bokk ak ñoom heure lekk heure naan heure tëdd yow ba nu bëgg a wuuteeg ñoom waxoo dëgg. Mm-hmm. sëriñ. Mm-hmm. coow lu bari mooy boo yoree secret yàlla nanga mm-hmm. koo werd moo xam doonte mi mille basmala la nga saxoo ko ne mm-hmm. lii kat dama koy def contrat a sama diggante ak sama borom ngir aajooy jàmm ñi saa mi ngi mel ne compte rek nga tijji werse woo werse wu ba pare nga bëgg benn bis nga ñëw ne ma kànjam ci sa ngoon mi nga faj sama aajo dama lay naxare <laughs> wëri wëri wëri wëri bu ñu demee banque ba duñ fa fekk dara nga tijji compte mooy sama diggante ak yàlla nga tijji compte man ma tijji compte guddi gu ne ma toog di werse waaw saa yu sa siditu jóg jógee ba mu wóor ma ne lii jar naa faj mm. dem dugal carte gab ci lu yomb ñëw jox la nga faj mm. parce que am na lu ma fa dugal mm. sëriñ day jaamu yàlla sëriñ day yor turu yàlla ismullahil ahsam mm-hmm. même bu dee sax da koy doxaan am na sëriñ yoon mënuñu bàyyi doxaan mm-hmm. waaye yorul doxaan yàqu ci dara ci sëriñ waaw mais déet waaye booy doxaan kay doxaan tey wér moo gën ngay doxaan te wér doo sëñ bi ah, xam na même kay booy doxaan wér dal <laughs> booy trian wér dal mm-hmm. booy a def rek del tudd suñ borom subhaanahu wa taala gis nga mm. boo ko dee tudd day dem ba yàgg mm. yëg-yëgu doxaan sax day dem ba nga xam ne boo ñëwoon ci jigéen ñi bëgg a doxaan sax koo tudd ne ko dama laa rek mu ne hey day mujj boo doo gisati koo ko defal mm-hmm. nit tudd yàlla daf lay yëkkati daf lay mm-hmm. jox salaahiya mm-hmm. daf lay jox yaqin dafay tax nit ñi ñeme la day tax yàlla bëgg la day tax nit ñi bëgg la day tax ak yusru am bari na nit koo xam ne mbiram nërta jag mbiram nërta jag du ngeen jëflante mukk. Hmm. du ngeen jëflante. xam naa ne yàlla dala ci gis nga ci jamono jii fan yii hmm. ànd na maak sama soxna. Hmm. su ma ko waxee nag day leer ba ëpp rek waaye damaa ko wax ne ko gis nga yàlla. damaa ànd ak sama soxna ak sama ñaari xarit. am kilifa. bu ma war a gisanteel. ci benn hôtel. bi ñuy dem yoon wi am tuuti teq-teq. ba heure bi ma ko joxoon ma tardé lu ma deux heures de temps. bi ci des mooy bu minuit jotee téléphone bi day dem silencier man ma fàtte ko dugal ko ci sama poche mu di ma woo ma laaj foo toll yëgu ko. bi ma ñëwee ba yegg si gisante wun mm-hmm. euh, genn kenn ci secrétaire am ya fa nekkoon ne ma nag comme ñëw nga moom dem moom mënta nekk. Mm. dañ lay jëlal fii Sambor. Mm-hmm. jëlal fii sa ñi nga àndal. bu subaa bu ñu xëyee sept ci suba ngeen gisante. waaye du am. Mm-hmm. ma ne ko du ma ko def. baal ma dellu. bu ñu xëyee nu xool nu déggante. gis nga bi ma xëyee avant midi dégg naa lu ko dal loo xam ne. Hmm. maanaam maara day taali. Hmm? waaw yàlla du caaxaan kon. dégg naa ko ci rajo bi damaa xëy suba di diglu rajo bi rek dégg ko. Hmm. ma bu ma fanaanoo woon ak moom dañuy xëy musiba mii dal ko ma ne xaw duma ci xool duma ci mën dara. kon bi ma yàlla naan bu ko gis bi may dem di am jafe-jafe. ak àgg fekk ko gisante wuñ. lii la yàlla doon bañ ma dugg ci. maanaam yàlla bu dee jàngee ismulaayil asam yàlla yàlla ngi la yombalal mbir mu pare rek. lay ñëw indil ko pour nga am ci ndam sa ndam mm. defet fu mu ñëwee mooy waman yattaqillaah yaj'al lahu maxrajan fu defet ñëwee yàlla da lay rocc mm. doo fekkee defet fu ndam ñëwee sa da naan laal rek mu ne tëf fekk yàllaa ko pare mm. loolu mooy ismullaahil ahsam macha allah yenn fen yu tembare yi ku ko def xamal ne du tuddukatu yàlla ah, billaahi yàlla du la xiir sax ci yooyu yàlla du la xiir sax ci loolu yëg-yëgu wax nangam ba noppi ndekete la ngay wax nii la jëm la ngay wax jëm ne. Mhm. loolu kuy tudd yàlla sax du la dal. ah mais sëriñ kon du fen de ah même budul ci kaw tamit warul fen ci suuf de. sëriñ dëgg war na fen. Mhm. ah am na sëriñ soo xam dina la wax dagg dara ba pare waataat ko mën na waataat ne li ñu wax du dëgg. maanaam am na sëriñ soo xam ne que leer na ne dinañ wax wax bi du bañ am di bañ am. ah loolu te benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon du. ñetti non loolu moom fen moom sëñ bi. waaw ah. waxuma la sëriñ waaye as gor sax du ko def. du ko def waaw. mais dina yàq dara ci liggéeyu sëriñ laa wax la comme di fen nii waaw ah, déet loolu kay sëñ bi xam nga ne crédibilité kay ñàkk crédibilité mi ngi tàmbalee ci fen hmm. ñàkk daraja waaw mi ngi tàmbalee ci yëg ne yow amoo nangam bay fen naan am naa ko hmm. maanaam fen moom gis nga ñàkk du du gàcca hmm. xam-xam du gàcca waaye fen gàcca gàcca yàlla incha allah as gor du fen ak koy wax bay waat tamit waat lu bari ñu moytu waat kay bàyyi mooy fala fen tàmbalee li tax nga gëm ne ko ba ngay waat kay mm-hmm. fala fala fen tàmbalee di waaw mas ngaa gis ku naan billaahi wallaahi tallaahi jigéen a ma jur mas nga ko gis ah. comme jot googu di gisul eh, baara waxtu looy tàggoo bu dul tàggatoo nga ñëwaal ci sëriñ si nga xam ne que ay ndaw lan tiktok ubbi buntu ñu mën faa jaarale seen message ba ñenn ñi naan ñi xale yi duñ dem liggéey wala ñu dem jaamu ji yàlla wala nangam xeet boobu daal wala ñëpp bu amee liberté du baax foofu loo ci mën a wax. ah TikTok daal ab ab application la ci téléphone lay dem. Mhm. nit ki ko soxlaa koy télécharger. waaw ñenn ñi joxe ñaan day def leen léegi. ah am na ñoo xam ne seen seen seen seeni tànk lañ fay jaay. Mhm. ah am na ñoo xam ne nii. Mhm. xëy na ñoom de réparé télé lañ fay lañ fay def. kenn ku nekk sa soxlaa la fa bàyyi. Ah, kon pour lan ñu gëm ne lii sëriñ waru koo soxla wala sëriñ nangam waru koo soxla. application la moog taxi yi di daw ci mbedd bi ñoo yem. Mm-hmm. sëriñ da koy dugg caga ko dugg mbër di ko dugg footballeur di ko dugg kenn ko ne ku ci am yitte rek mm-hmm. voilà léegi ñaan yéen fay joxe nag yëpp amoo ci problème ah, déet créé wuñ ko de lépp ah, ay ñaan la ay ñaan la man mii dama damay dégg dara ci whatsapp bi xam ne lii dëgg la mm-hmm. da boo ma ko soxlaa def ko ah, waaw wow kon daal lu créé wuñ ko ay bagage yuñ dencoon la am possibilité génne ko ci wat ci tiktok bi génne ko waaw mais léegi da ngay def ñu gis ko gisaat beneen sëriñ bu ne yii nan ko moytu mën na tëj nit yi nit di wax yi xet yooyu bu doon looloo doo julli da naan julli ne nii ñam ne la wàcceel nga wàccee kii ñëw ne la yéegala loolu moom adduna ak la ma waxoon waaja ca télé ba ne ma maa yow bokkuñu xalaat bokkuñu gis-gis ma ne ko looloo tax ñu woonu di buñ bokkoon xalaat ak gis-gis duñ ñu woo adduna werante la ba jeex werante la ba jeex ah kon Cheikh Bara mi ngi ci quartier bu tudd La Selle Saint Saint Cloud boo ko jaawalee boo ko fi jaawalee ba gars yi moom foofu la nekk ci France ngeen ñëw gis ko. 6 man daal maa ngi maa ngi France fi ma dal Cheikh xamu ko xawuma ko. waaw waaw kuy ñëw <laughs> kuy ñëw wootel kuy ñëw wooteel WhatsApp. wooteel ma wax la fi comme nga États-Unis fi nekk nii sori fa. kuy ñëw daal boo ma wooyee WhatsApp ne ma sëñ Baara. 610 80 80 sëñ Baara maa ngi nii pare ci yow laa jëm si. Ah. ma jox la Moussa eh, sama xarit bi na dalal. waaw du ma tudd tur wi ah, waaw. ma ma jox la ko mu tegtal la. mu tegtal la waaye yii seex wax moom. waaw ah. assuré wu ma ko de. assuré wu tamit xaw ma fa ngay dal tamit. xaw ma ko de waaye daal di Belgique laay nekk. Belgique ku woo Manir ñang. Ah. ku ma woo daal ma jox la Manir mën la ñëwal fii nga ñëw dégg ma gis. ok Maimouna waaw Aïdara damay bañ damay bañ li nga wax ni daa nuroog Sinwaa damay bañ gaa yi dem Siin. <laughs> kon daal numéro bi mi ngi dox WhatsApp 610 81 81 Mamy Dafa war a nekk France di ko kii far Mamy dem États-Unis di ko baax euh, mais Sabar di ñëwaat ñu dem. dem defe foofu ay émission sox yu bëri incha allah nuyul soxna Kati soxna Seeg ñëpp nuyu naa soxna Kati waaw nuyu naa soxna Mbert nuyu naa soxna Fat Ndiaye nuyu naa soxna Aysa Ndiaye soxna Aysa Ndiaye waaw soxna yëpp soxna yëpp ak soxna Fat Dieng ah soxna Fat Dieng hmm? Fat ak ñi ngoro ngoro yu ñoragul waaw ah, tuddal turi maa ngi xaw seen ngoro ngoro yu ñoragul Seexu naa ma wax Seexu <laughs> ah. wax nga pare moom de sax ah. docteur Wade tamit daa mel ci la bokk doon ngoro yi ñoragul daal bari na yu ma ci na xam nga gars yi dañ ma gis pet baal ma <laughs> baal ma bàyyi doon rek ndax am na ustaas yu joxe ngoro yi ñoragul ah, ah. ustaas yi am na ustaas ngoro yu ñoragul ustaas yor ngoro yu waaw am na am na sëriñ sama xaritu sëriñu mbàkke be bu fi dox ñaareel bu ñoragul ma nga bu ñoragul waaw ah. xam nga yi dañu wutu këyit boo xoolaan sëñ bi kii de dama am lu ma doon wax ci fan moom kon ni mu <laughs> kon yéen ñi bëgg noob te nekk bitim tubaab bi yow ba mu modd ba mu modd Cheikh Bara de la nga ñëw foofu mu defal la ko bu la neex sax nga indil ko tubaab bi bu ci nar a kiir nga indil ko nag tubaab bii moom laa bëgg mu takk kii bu takkee affaire bi baax xam naa bu Cheikh Bara gisee tubaab bi jëral dina gën a yomb moo ngi ci France kon a dikk loraange dakk kon ngeen bàyyi ko xel nii ngeen di seetaan émission bi bu <coughs> insister ci WhatsApp bi parce que tamit bu déplacé wu tuuti rek mooy loolu mais di nga ko mën a fekk France mi ngi ci tournée bi tournée bi gàtt na ngeen def ko yitte balaa ngay taxaw naan dem naa ak yu mel noonu taalal sa oto rek nga ñëw wala nga jël avion fekk ko fi mu nekk wala ngeen woo ko ngeen daje bu ci gën a yomb ngeen def ko bu baax a baax ci même numéro bi 610 81 81 ci whatsapp bi di nga jot Cheikh Bara Ndiaye jërën la nekk bu baax a a baax équipe technique bi ñu àndaloon moom it docteur Wade bu Casamance nekk ci Petit Sow Gaw Sow nekk ci Baye Massamba Diop nekk ci balaa loolu gërëm nañ tamit Ousseynou Ly Allemagne ci Cheikh Bara gis naa boolewoo ci programme bi Allemagne mais grawul Allemagne dama fay dem. Allemagne da ngay dem. ah yaa yow dama ko fàtte ah, wax naa ah. Berlin laay dal. Ah, Berlin ok jéena ba jabaate ma nga Berlin kon. jéena ba ah ak na koy Diop mu ngi Bremen ak yooyu. kon ngeen nag nooy ndaw sama doon ñaanal ca tubaab ba te ñaan nga jàpput. waaw waaw waaw tam ne woon jàpput. ah nee ko na ñëw nag. dafa dëgg gis ngeen ko. xam am na sëriñ soo xam ne que lu kii moom nee na tam ko ñaan ci tubaab bi jàppul. waaw jéena ba jabaate Cheikh Bara nee na nga ñëw. tubaab ba jabaake. jéena ba jabaate waaw. ñëwal ñëwal ma jàpp tubaab bi mu jàpp tubaab bi incha allah incha allah bu baax a baax mami d'enfant France Sayer Fall Espagne Espagne da nga dem Espagne nag moom maa ngi xool la yaa ngi xool waaw waaw jeex na kon mm. incha allah mm. kon ngeen bàyyi xel bu baax a baax Cheikh Bara Ndiaye ku ko soxla rek mu nga jërul ngay topp GP yooyu demal gisi ko jërën instant bi nga indaale euro yu bari nag nga kii ko teral ko gan indil ko bàyyi ko xel bu baax a baax ngir jox ko mu lekk bu suur parce que njaayeen la euh, fan yooyu doo fa nekk di war xanaa Eh, woor moom defuma ko wax dëgg yàlla defu ko gandu woor eh, gandu woor gërëm nañu équipe technique bépp moom it docteur Wade Casamance ma Massamba Diop Petit Sow Gawsu Sow soxna May Diop réalisation bi sëñ Fallou Mbacke Diop gërëm nañ ko ak alaaji Soloxo Ndiaye sëñ Fallou waroon def émission bi mais dafa mujj moom di patiner quoi ñu bàyyi ñu nanguwaat micro bi gërëm nañ ko bu baax a baax ak eh, ñëpp ñi nga xam ñi ngi seetaan Tektal TV ngeen abonné ci Tektal TV abonné nag doo ci fay dara kum neex nga abonné kum neex bul wala nga dugg ci YouTube bind Tektal TV gis suñu bagage ñun duñ def publicité émission lan def ku am nekk ci njariñ nekkuñ ci ay féewaloog yëpp wax ci xam-xam di bi ba fee ko mën nga jariñ ko ko mënul tamit nga yem ci li nga mën bu baax a baax a baax xew dikk loraa nga dak Cheikh baar Ndiaye borom def gis émission bari jaajëf